di yoonu murit yépp di nuyu yoonu Baye Fall yëpp <clears throat> eh, di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp nag bàyyiwuma kenn mm-hmm. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare mm-hmm. di jëkke ci siyaar bi ñun Baye Fall fu nu fekk mbakke mbakke mm-hmm. moom lañu ñu jëkk nuyu di nuyu sëñ bi Mbàkke di ko nuyu bu baax ci turu Sëriñ Tuubaa di nuyu ki moom jotaay bi ndax buñ nekki moom jotaay bi xel yi daa war a dem ci sëñ Mouhamadul Muntaqa jotaay bi jotaayama du jotaayu Cheikh ra ku dégg Cheikh ra te xam luy Cheikh ra di nga xam ne jotaay bi Cheikh Ibra moomu ko sëñ Muntaqa ko moom te nuyu gi ñu koy nuyu dañoo xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa leen mën a waat mooy bëgg gi mu bëgg Cheikh Ibra mm-hmm. buñ ko tegoon ci balance jël ñi bëgg Cheikh Ibra yépp teg leen ci balance bëggam wat ko mhm. te dama leen ci jox firnde waxuma waxi euh, kii autoglorification wala jay mhm. waxuma loolu mhm. moom Cheikh Mamadou Mountakha daa wax ne jël loxoom teg ki dënnam na Baay Faal bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm loolu kenn wax goo moom Serigne Mountakha moo ko wax te mu ngi circulé ci YouTube bi moom Serigne Mountakha sëñ Muntaxa Mbàkke nee na Baay Faal bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëmm la wax mm-hmm, Muntaxa loolu ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. mu dell wax ne Cheikh Ibra nañ ko bàyyi ak jagleem mm-hmm. ñëpp dégg nañ ko dellu wax ne lépp faal ñépp di ko dégg sëñ Muntaxa nee na lépp faal la kon ay waxam laay wax sëñ Muntaxa moomam jotaay bi kon lépp ci moom lay dellu mm-hmm. noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi allahumma amin yàggal fi ñuy liggéeyal yàlla ñëpp allahumma amin eh, bu ko defee ñu nuyu sëriñ Cheikh Jëmb Fall mm-hmm. mi nga xam ne mooy Cheikh Ibra tey mm-hmm. te waxoon naa bu yàgg ne Cheikh Ibra li àdduna di nara def ba bis pinc wax na ko te sénégalais yi ñi ni ci biiram xam nañ ne problème yi ngeen di wax ak ay coronavirus ak yooyu yëpp ba mu ca waxee boobu ñun ñii di wax juddooguñu ba mu waxee bu ñëwee nu muy melit Cheikh waaye nag malheureusement Sénégal euh, inventé ak déformé ak jugé la ñu gën a man mm-hmm. dégg nga ñett yooyu te dinaa ci ñëw mm-hmm. dañuy inventé lu ñu xamul. dëgg la déformé jugé loo xam ne amuñu ci benn élément. wallaahi bay dëgg. bu ko nit ñi gëstu woon. Mhm. coono yi ñu nekk yëpp duñ dal. kon maa ngi nuyu sëñ Cheikh Jëmb. Mhm. mi nga xam ne bi may ñëw fii dama ko tàggu mu yónnee ma audio. Mhm. ne ma maa ngi yow ànd ci bis maa ngi nuyu eh, nit ñu am solo nitu qualité yi nga xam ne. baatu qualité laa wax de réew mi kenn yebu leen ci te ñu bokk ci Cheikh Ibra Fall te bokk ci sëriñ Touba ki ma ci jëkke mooy sëñ Abo Baraka mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Fallu dama bëgg nit ñëpp xam kuy Cheikh Ibra <laughs> fa la bokk waxuma xam pleinement loolu kenn mënu ko mm-hmm. ndax nee na raw naa bët raw xel mm-hmm. doom xel dong ngeen yor ak i bët te bët du ma gis xel duma xam waaye liñ mën a xam ci moom laay wax. Mhm. sëñ Abo Baraka yi ngeen di gis comme àdduna bépp a nga koy déglu dañ leen war a xamal ni soxna Bousso Fall moom sëñ Muudu Moustapha moom Cheikh Ibrahima mooy yaayam kon kon kooku ku ko xool xam ne waroo yëpp seex Ibrahima maa ngi nuyu. sëñ Fàllu mu sëñ Murtada waaw euh, soxna maam Sey Fall mooy dama juum foofu mooy way juru sëñ Abo sëñ Mor Moustapha ko jur mm-hmm. waaye maa ngi nuyu sëñ Fàllum sëñ Murtada ku ne xam na ko ci sell ak baax mm-hmm. te soxna Boussa Fall mu sëñ Mor Moustapha mooy ndeyam mm-hmm. maa ngi nuyu tamit bàyyi Ndaam Fall di tax ma di ko nuyu mooy sëñ Mortala Fall la ko jur te soxna benn fàllu mu mu sëñ fàllu mooy ndeyam mm-hmm. maa ngi nuyu tamit qualité Cheikh Ibra rek laa bëgg a jëkk génne mm-hmm. ba ñu xam ne ku ko yëpp dangaa dajewul ak ay ay sëtam waaye am na ci réew mi ñoo xam ne bis boo xamante ni bi taxawoon nañu bëgg a wane kuy Cheikh Ibra ah coow li dana bari <laughs> maa ngi nuyu euh, waa kër sëñ Cheikh Issa Dieng di nuyu waa kër sëñ naar jenn li tax ma koy nuyu euh, sëñ naar jenn sëñ bari jenn ko jur te yaay sooda faalum Cheikh Ibrahima mooy ndeyam te kenn yebbu ko ci yoonu murid Sénégal sax kenn yebbu fi sëñ naar jenn kenn dàqu ko jëf kenn gënu ko euh, noo ngi nuyu waa kër sëñ Cheikh Astou mu sëñ Basiiru doomi seigne basiru la té doomi Cheikh Ibra soxna Astoufal mbar lañ jël jox ko seigne Basiiru mo am seigne soxna Astoufal ma ngi nuyu seigne khabban mu seigne Fàllu soxna adam Fall ko jur serif Asana ko jur kon Cheikh Ibra du morom de déedéet ñoñu kenn gënu len denga te buñ ko toppee noonu dana yaatu. wallaahi ñoo xamante ni Cheikh Ibra maa ngi xam le ne moom moo ëpp sët yu mu bokk ak sëñ Touba ci àdduna sët yoo xam ne da ko séq ak sëñ Touba juróom wàññi naa ko ci. juróom-ñaar téeméer. yu bokk ak sëñ Touba nga xam ne dañ naan kii Cheikh Ibra maamam sëñ Touba ay maamam loolu Cheikh liggéey na ko ndax Cheikh Moustapha Mbacke di nuyu waa Daaru Xuddoos yëpp. ah moom dañ koo jël jox ko soxna euh, euh, euh, soxna jeefaal mu sëñ Modou Moustapha Fall Cheikh Moustapha Mbacke la mu am ci soxna ndey njaxat ma nekkoon Kaolack ñu jël sëñ Fall jox ko soxna aadama Fall mu jur sëñ xabbaan kon defe naa ne buñ ko toppee noonu ay nit ñu am qualité ñu foor ñu bokk ci Cheikh Ibra ñoom ñoo moom waxtaan wi tey macha allah kon ñooñ ñëpp ñu ngi leen di nuyu soog a nag jàll ci kër Cheikh Ibra yi sëñ Amdi Khady Fall ak euh, mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Assane ñoo ngi koy nuyu bu baax Fall Ndiaga ku ko yëpp da nga koo xamul waaye jëf ak ne ci li nga war a ne ku yaakaar ne ëppale nga ko sëñ Amdi Xadi xamoo li ngay wax eh, te nag eh, waxtaan yu may def nee naa leen baatu tubaab laa jëkk utiliser du auto glorification mm-hmm. ñëwuñu fi pour glorifier Cheikh Ibra ñun tuuti nañ ci noo ngi nuyu tamit sëñ Fallum sëñ Abdou Sakkoor mm, Sakkoor Fall ah, di nuyu sëñ Cheikh Ngunda mu sëñ Ngundam Cheikh Ibra. Ndam Fall. waaw di nuyu Seigne Amdi Modou Mbenda hmm mi nga xamne moy khalifa Seigne Modou Moodu Mbenda. Mm-hmm. ñoo ngi nuyu Seigne Tala mom Seigne Ablaye Fall Ndar. Mm-hmm. ñoo ngi nuyu Seigne Bass Fall Alcorane hmm di nuyu Seigne Fallu mu Seigne Modou Aminta. hmm xamna buñ ko topé hmm dana yaatu. waaye ñoo ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu nak murit yépp Mm-hmm. di nuyu Baye Fall yëpp. Mm-hmm. di fas yéene nuyu waa kër gi. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo saytu lii. samp ko ba àdduna bépp mën a jot ci li ñuy jot. liggéey rek mooy jariña te defe naa ne mooy credo wu ñi ñi samp lii. liggéey te teg ko ci yoon. te loolu Cheikh Ibra da ko jàngale. bëgg naa nag bu demee ba ci kanam. ñu dugg ci. mboolem li nekk ci àdduna nit di ko jëfandikoo. ni ko ko Cheikh Ibra jàngale. jàngale na famille. jàngale na ay doom. Cheikh Ibra jàngale na àndandoo nuñ koy def. jàngale na lépp. nu bàyyi ko fi nag xalaat bu ne ñu jël ko. moo tax ci échec rek la ñuy def. <laughs> wallaay wallaay. te buñ ko càmbaree ci kanam tuuti di ngeen xam ne. incha allah. lu ñu war a wax wax na ko. Mm-hmm. gis nga lii ñu wane ci écran bi. Mm-hmm. médaille la boo xam ne euh, administration française ñoo ko joxoon. Mm-hmm. l'étoile noire. président France moo ko décerné woon Cheikh Ibra. 1910 kon nag buñ demee ba ci kanam lu bare bare bare bare. danañ ko ci génne mu ngi aju ci laaj yi maa ngi gërëm sëñ Fall mi. Euh, ndax man maa sàkk woon. mu ñëw ci émission bi. Mhm. te tey laa ko mës a gis. Mhm. ndax dëggoom far ndekete ci Cheikh Ibra la bokk. macha allah ma ne ko kon juumuma. Mhm. kon Pape Cheikh ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Baye Ndiaga. liñ lay gërëme noonu mooy defuñu ko pour jayaate. liñ lay gërëme mooy woyof gi nga am. ak muñ gi nga am. nun sori nañu waaye lépp la ñu seetlu. ak dal gi nga am. ak dégg gi nga am ñoo ngi la ci sant bu baax nag. di la ci gërëm di la ñaanal mu jëm kanam. amiin ndax loolu rek mooy maye dara. amiin eh, di sant ñi ni ci plateau bi ñëpp jigéen ñi. Mm-hmm. ak góor ñi. Mm-hmm. ak Mamadou mbay Garmeek mbokk yëpp di leen mm-hmm. présenté nag ñi ma àndal. muy ñoo xamante ni ñi koo ci gis jàng na université ba génn. te Cheikh Ibrahima rek lay nooyee. Eh, Euh, Cheikh Ibra jaañ mais ma àndal fi mu nekk nii jàng na ba am doctorat te moo nara a kat moom Cheikh Diagne mi mu ngi nii toog macha allah <laughs> moo nar a sikkar si de euh. te fa muy liggéey ku fa dem doo ko yeb waaye boo gisee njañam li da ngay defee ne mm-hmm. ko ku war a yeb la boo gàttee xel mën nga koo xeeb ah ma ni boo gàttee xel mën nga koo xeeb waaw kay te ku dugg ci ku dugg ci biir di nga xam ne euh. kenn rawu ko té famuy liggéey kilifa la fa. allah te té mo ñew ngir sikar sikar si. macha allah Cheikh Fall sek mi. Hmm. genn na université. Hmm. mi ngi ni top hmm. Abdou mbay mi jang na université ba allah ñi ma andal ñep seigne joxane mi mom moy sama loxo ndeyjoor. macha allah mom tayer la bu mak ci société bu mak? macha allah waaw. kon ma ngi leen di nuyoo léegi ñii ñëpp. jërëjëf di nuyu njabot gi yep di nuyu Baye Ndiaga dëkk Cap Vert waaye tey waxtaane wuñu Cap Vert

yëf ne looloo gën. Mm. Cheikh jàngale na ko bu yàgg. Mm. Euh, Pape Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di delloo nuyoo kilifa gi nga xamante ni moom la ñu fi am honneur comme ni nga ko waxee dalal tey di nuyu bu baax sëñ Mamour Mbacke suma xarit di nuyu sunu jigéen yi nekk ci plateau bi yëpp. di di la sant bu baax ci jotaay bi di ci sant aussi kilifa gi nga xamante ni sàkku na ñu bokk ko ak moom di wax ne loolu soññee la ci ñun. Euh, tawféex la tamit ci ñun ngir euh, liggéey lu ñu mën di am ci kaw suuf liggéeyal suñu mag ñi dans leur globalité moo ñu ko gënal effectivement Cheikh Ibra euh, moom rek doy na réponse ci problématique yi nga xamante ni yëpp monde moderne bi daf ñu ko posé tey nga xamante ni ci impasse la ñu toll dinañ si dellu si ci waxtaan bi muy idéologie muy diplomatie

elle est multiforme elle est multidimensionnelle. Mhm. léegi nan la ñuy def nag ñun ba du ñu dem tey ca Montesquieu ak ñoom Hugo gaa yooyu. li ñu am fii ñu jëfandikoo ko je pense que loolu mooy défi bi loolu mooy challenge bi. Mm. te tey jii nekk na jotaay boo xamante ni. dinañ ci def gém kattan li ñu yàlla suturaale tamit dimbale ñu ci mooy on a quelqu'un qui a le profil de l'emploi té loolu yow lañ ci félicité di la ci gërëm bu baax. macha allah jëf euh, Pape jibril euh, kon El Hadj euh, mu ngoog ñu profito ci rek dem fekki Sophie fa mu ne bu ko défé mu am lu mu ñu défal ci berndé ñu doga enchaîner ak publicité yi nak doga tambali tàmbali waxtaan wi Cheikh Diagne pare pour si karal ñu tay ci guddigi gi Sénégal yëpp bég té tàmbalee guñu Sénégal yëpp bég na Sénégal yëpp contane waye bay Cheikh balaa ngaa tàmbali dara. Hmm. Njaga Jóob moomu tok té nga tabbi ci Cap-Vert hmm. té nga té nga waxtanu waxtanu ñu tey pescule du Cap-Vert hmm. dafa am trondom bu mbaax bu yiw bu ñaan Ndiagne Diop le député maire de Bambilor hmm. am amna tranga bu mu tek sama loxo dina ko tek ci loxo sha allah ci kàttanu yàlla nee na mi ngi ko def ndax sëñ Abo mbacké Mbàkke mi nga xam ne ni maam Cheikh moy mamam té muy kenn ci moom loolu nag dégg naa ci lu Amadou Mbaye gar mi jox na alaaji njaga ñi ngi xam ne bisimilah kontaan nañu ci yow de wallaay bàyyi njaga parce que xam naa ne waxtaan baax na mais bari na ñoo xam ne ñi bundee waxtaan seen bakkan la ñuy waxtaan dalu ko am na ñoo xam bundee waxtaan ci seen nafsu la ñu koy teg jàngalekat la dalu ko pédagogie dama ci waxtaan ak ku mag ku ñaan Paala Sam moom maam Cheikh rek la gëm mu ne Amadou Mbaye gar mi yéen a ngi mës ngeen am gan de gan yi bari na de waaye yéen a ngi doog a am gan alaaji njaga jóg yéen a ngi doog am gan kon daal bàyyi Cheikh boo tàbbee ci Sophie ba pare. mu dellu rek ci moom. mu ngoog kon ñu euh, jàll ci Sophie euh, jëlaale leen en même temps ci téléphone yi ku dugg ñu jox ko ndimbalam euh, doog tàbbi ci waxtaan weeg Baye Ndiaga mi nga xam ne ni mooy gan gi tey ñu fas yéene waxtaane Sidi Ibrahima ci quartier général. ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu TFM waaw TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk namuñ dara maguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg farima roli pastami toog suñuy kër daal doon na lu yomb corps bu ak enema une valeur sûre de chez nous Jadida Adel, c'est tout simplement le meilleur. Senso <laughs> Ardo. <laughs> Pureté, générosité, partage. Gëneelu weeru koor yaa ngi si Kandia moulin leen cafkaam selbi si entier ou le demi écrémé avec la saveur gourmande de sel aromatisé vanille et fraise si bricot 500 ml yi gëna yomb jëfëndiko Kandia le bon goût du lait avec vous pour un bon ramadan salaamaaleykum mbokk yi xarit di ñu seetaan salaamaaleykum Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nekk ci plateau yëpp naka ñu koy defee à chaque fois andil leen nag benn plat boo xamante ne soit di ngeen ko mën a jël pour xëdd wala ngeen mën ko jël pour ndogu tey nag cake aux fruits laa comme ni nga gisee sama table ji yaa ñi ji rek am nañu raisin am nañu nen am nañu sucre de canne am nañu li nga xam ni mooy euh, pomme clémentine banane dañ ko defaree nag ak li nga xam ni mooy euh, yaourt bi nga xam ni waa Ardo ñoo ñu ko andil ak délia bi nga xam ni waa Sinico

qualité garantie nous andil ñu huile jadida chocolat Delia la délicieuse andil ñu ni nga xamni moy jadida mayonnaise jadida bu ñu remercier Wa ardo wa ardo ñom tamit ñoo andil ñu ardo tiakri ardo riz au lait ardo yaourt bi nga xamni moy goût vanille bi ardo nak légui dañuy def li nga xamni moy fromage blanc gis nga ni fromage blanc bi wa ardo ñoo ñu ko andil boy def say crêpe wala ngay def say euh, gâteau moom mo ci gën day dem soit comme plat sucré comme salé euh, utiliser leen ko moom ay produits mucc ayib lañ andil ñi nga xamni ñoy ardo ñu and aussi ak ñi nga xamni ni wa waa kanja xam nga nak euh,

farine farima gis nga mom comme nima ko waxe day dem suñuy keek suñuy petit four gis nga farine pâtissière la bo xamanteni type 45 la mën nga ko utiliser soit beñ wala soit fataaya wala ngay défar comme keek bi nga xamni mom lañ leen proposer tay 250 grammes de farine parce que nak boy défar pâtisserie mesure bi da ci am solo liñuy def nak moy ñew rek tambali ak li nga xamni moy sucre bi gis nga ni tay suñu sucre bi ñu utiliser ne rek moom la utiliser ay équivalent wu 100 grammes la ñuy utiliser bu ñu paree nag dañuy ñëw rek jël ci suñu yaourt bi nga xamante ne ni moom waa Ardo ñooñu ko andil jot nañu def yaourt bi ak sucre bi sucre bi nak déjà rek dañu ko mélanger ak li nga xamni moy mooy muscade dañuy ñëw rek mélanger le tout yaourt ak sucre suñu ko mélanger nak le temps que muy fondre ñu daal di jël li nga xamni nak moy suñu levure voilà équivalent soupe ben cuillère à soupe la ñuy def mooy benn sachet bi ko mélanger ni ba paré dafa xawa euh, compact de trop da fay laaj nak euh, ñu jël suñu les kanja bi nga xamanteni ni mom tamit daf ñi accompagner fi ci suñu bir way demi écrémé bi amna amna entier gis nga ni nak euh, demi écrémé bi rek laa jël gis nga emballage bi mu neex a ba dé gis nga meew bi mom bu seddee neex bu tangé ni damay ñëw rek daal di sotti moom tamit ci suñu appareil daal di tëjaat bu baax gis nga ni mu neex a conserver ba dé ñu mélanger waat gis nga nii nag soowu ardo bi nga xam mom lañ ci def ardo vanille bi boo ci xasse ba def nak jarul nga ci yokkat benen fa farfan ndax li nga soxla yépp soowu ardo bi dala koy jox gis nga appareil bi ni lañuy soxla mu mel homogène am couleur te du am benn grumeau mbokki xarit di ñu seetaan def nañu li nga xamante ne ni mooy suñu euh, pataakeeg bi ci li nga xam ne mooy suñu muul bi jëm au four dañu def benn moitié bi ñu pare nag étaler ci pomme yi nga xam ne dañu ko dagg en julienne teg banaan def tuuti raisin bu la neexee nag fruit yi mën nga ko changer soit nga jël clémentine wala nga jël ananas mais ñun tey ñaari rek la ñu jël bu ñu defee noonu ba pare rek am nañu fii rek li nga xam ni mooy euh, suñu vermicelle multicolore bi dañuy ñëw rek saupoudrer ko tuuti ci kaw le temps que muy génn ci four bi ñu nag ci defaat tuuti chocolat délia euh, ko dressé ba mu rafet da ngay préchauffer nak à l'avance four à 180 degrés boku ci dougalé nak nga wàññi ko taal ci suuf bàyyi nak 15 euh, euh, à 20 minutes mu ñox ci kanam tuuti rek ñu dal di génné suñu cake mën ko découper. Euh, Pape Cheikh nak comme ni ngeen ko gissé nak li nak mo nekkoon suñu cake au fruit bi nga xamni mom lañ leen andi tay yomb na noy na neex na te neex na défar it déjà li pour nga défar ko c'est très simple te mëna la servir soit pour xëdd mu servir la aussi wala pour ndogu comme ni ñu koy waxé à chaque fois li ñi def nak moy jaajëfal waa NMA ñi nga xamante ni ñoo ñu andil farine pâtissière Farima bi nga xamante ni moom la ñu utiliser pour defar suñu cake aux fruits bu tay bi ñu andil ñu nag euh, pasta mi euh, vermicelle pasta mi macaroni ak rouli vermicelle rouli coquillette ak mu xam sa mi nga xamante ni tamit kenn du dem mu des am nañu tamit spaghetti jaajëfal waa Sénico la qualité garantie euh, waa Kandia ñi nga xam ne ñoo ñu andil lait bi nga xamante ni dafa riche en protéines am na entier ak demi li ñuy def nag mooy aussi jaajëfal rek suñu partenaires yi

ci lu tuuti loole lu Touba ci kanam jaar ba def li ci Touba ci diiru ñetti at ay bërëbu fajukaay ak i ambulance jàppale lu toll ci téeméeri dara di defar bâtiment ca université Cheikhul Khadim ànd ko addiya téeméeri million leeral dëkk bi ci ay lampadaire defaraat mbedd yi ci jamonoy nawet ay camion yu mbalit naatal Touba ci jëmbatum garab ñaari camion citerne ak ambulance jox ko sapeur pompier benn pick jox ko Safinatul Amaan yóbbu ndox ci sancaan yi jënd juróom benn pompe forage ñaar fukki réservoir yu juróomi junni litre dimbalante social def na ci lu ëpp juróom fukki million ñeent fukki million juróom mu tàbbal ko ci opération jële fi coronavirus li lépp ndax yow yow joxe weer wu ne yaa ko def ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf ndax liggéeyub Serigne Touba la liggéey bi mu laal suuf nañ ko yëkkati yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu ci mën kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf defal jazz jazz liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba rester chez soi te jot sa suukaru koor saa yoo des Illimix jour 1000 francs Mon nga xewulu ci bañ a ndogu yi ñu di may semaine bu nekk ci diiru corps. Ramadan Mubarak nous allons boole xol Orange Assalamu alaikum Boki man la Mister TQG tay dañu ñëw pour waxtaan ak yéen ci ay peinture décorative TQG Touba Quincaillerie Générale And ak Colorado mo leen indil ay gamme de peinture décorative ak anti humidité yu wor Coloprime ak Induflex ñoy ay peinture spéciale anti humidité certifié W3 day fàtte seeni mur te it mën ngeen ci tek yeneen couche de peinture yaa ko si dara mën na doon itam impression anti humidité wala fixateur day jàpp bu baax Acrimat du peinture décorative écologique day rafetal séni salon nek wala wagn ba nopi amul ben xet du indi jafé jafé ci sen wergu yaram te bu len nexé sax diko raxas mën ko utiliser comme peinture extérieure parce que dafa résistant Té amna version mat ak satiné revenant rafetal ak décoré moko ko tax a muy salon salle d'attente ba ci seen biir kër ko def Stella moom peinture décorative la dafay jox sen intérieur atmosphère bu chic et doux ñun TQG ak sunu machine teinture bi ci 5 minutes dong ñu jox la couleur de peinture bi nga bëgg. Touba Quincaillerie Générale ak Colorado dafa bolé peinture yu rafet baax wor tout Touba Quincaillerie Général, Kër Damel lot numéro 3 qui stade Léopold Sédar Senghor 33 879 28 28 33 879 28 28 gànnaayoo kii gën kii wóor mënee fu ne ba noppi sakkan loolu ana lay dox distressé stressé ak la main sa ay karo dañuy set bay nes na si say ndëpp set wécc ci lu gaaw sa yére nag set rafet ba noppi ànd ak xetu ni moom bu neex ak la main sa aajo faju kon daal pureté générosité partage ngëneelu weeru koor yang ngi si meew Kandia taamu leen cafkaam bu si bi si entier demi écrémé avec la saveur gourmand de selé aromatisé vanille et fraise Si briku 500 ml yi gën a yomb Kandia le bon goût du lait avec vous pour un bon ramadan matinal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM lañ bëgg tante bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM donc ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci euh, télévision future euh, Média si vous nous rejoignez ñu ngi doog di tambali euh, li ñu leen diggoon ci ay inédits ak ay hors série yu ñu leen di jagleel ci chaque saison bu quartier général guddi git nag tey ñu jagleel ko ki xam ne ni moo di Cheikh Fall di guddib Sidi Birahim Baye Ndiaga Diop moom la ñu fas yéene àndal ci waxtaan wi Serigne Mamor Mbacke ngi toogee noonu itam ak ki xam ne ni moo di Pape Djibril Fall ci beneen studio bi ñun ñëpp ngi fi itam pour gunge leen fii ba ci kanam euh, bu leen fàtte ni yi ñu leen tàmmal itam bàyyiwuñ ci dara euh, bokk na ci enveloppe yi nga xamee ni euh, ñoo ngi koy séddalee mu doon ndimbal ci période bi la nga xame ni période du crise la lii yëpp ngeen gis ma te ci ay enveloppe fan ni yëpp mooy yaa xamee ni ñoo ngi koy maye daanaka mat na ci ay quarante enveloppe yoo xamee ni bu ci nekk def na ñaar fukki junni donc téléspectateurs yi la ko jagleel télé la moo tax ñu koy wone donc yoon la ñu wax leen lii dañu koy joxe ak yu ñu joxe ba noppi New ñu jox ay téléspectateurs un peu partout à travers euh, Sénégal plus ay pagné yo xamé ni euh, def na ay dundu diwlin ceeb euh, suukar ak lepp lo xamé ni nit mëna ko mëna ko soxla du ngeen déplacé wu da ngeen di tok seen kër ñu livrer leen ko grâce ak Rapidos bu ngeen soxla itam lu ngeen lekk mën woté woote fi xamé xam ni mooy chez Kacha nekk ci Almadi ñu livrer leen ndogu xëdd Rapidos itam xam nga période bi période couvre-feu la yenn saa am na ñu bëri xamé ni xame ñi mën nañoo toog xiif guddi gi euh, bu leen neexee ngeen woote ci euh, numéro bi nga xamee ni moo nekk ci suufu écran bi numéro rapidos lu ngeen commandé ci lekk euh, mën nañu leen ko livrer on a tenté l'expérience hier mën naa ko tenté waat léegi parce que rapidos mën nga fa commandé lekk di bi hamburger mën nga sax commander glace te comme tey ay bernde lañ ñu indil par exemple ki ne Ndour euh, jox na nañu euh, ay bernde méchoui la yónnee mën nañ ñu ko indil euh, ñu tàmbali ñu tàmbali bernde yi am na suma jigéen boo xamante ni Faben Diop borom Dubaay moom daf ñu yónnee moom it ay barada kaas daf ma xaw a sori moo tax mënuma koo yëkkati Café Touba bi jógee ci Kuti Fall moom ñu ngi koy ziar bu baax mbokk ndayam Serigne Manel Fall ca fi xamee ni moo moo di euh, Canada donc euh, Café Touba yaa ngoog euh, kaas yi mu ngi jógee ci suñu xarit Faben Diop ñu woote peut-être rapidos yi ñu war a def yëpp dafa bëri de oulala donc gaaw leen ñu jox leen ci xaalis bi woo rapidos itam commandé peut-être glace rek comme am nañu ay bernde yu fi ne wala lu oyof rek ndeysaan ah. plus glace chocolat waaw waaw man j'aime beaucoup glace chocolat. yow moom nga bëgg. Mm. d'accord donc naa la ko naa la ko commandé léegi moom. glace chocolat yow yow vanille. Mm. Mm. waaw man li ma fi seen yëpp doy na ma. yii yëpp d'accord donc na euh, bernde yi euh, yegg si on fait quoi euh, dites-moi derrière. bu ñu jokkoo ak moom rek dañuy tàmbali waxtaan bi de après bu ma kenn joxeel xaalis bi donc on fait quoi. Ok, kon nañ jël téléspectateur bu ñu jox euh, waaw tam ci di ay yi ñuy ci gën rafet de hein? ndax ku né war na ci am Allô Allô Allô, allô bonsoir. bonsoir. bonsoir monsieur vous allez bien. oui et vous. vous bien au service Rapidos. Euh, ah rapidos waaw maa ngi foogoon ni téléspectateur baal ma man le Pape Cheikh Diallo bu télévision Futur Média nga def. wa ñu ngi sant yàlla bu baax Pape Cheikh. ça va. ça va bien. mbaa yéen ngi seetaan TFM. wa ñu ngi seetaan TFM kay. wa kon yéen nga ngi nga ñuy gis. wa ñu ngi leen gis kay. ñun ñu tok fi comme ñu tok seen kër bu ñu bëggee commander ak heure couvre feu bi dañuy commander ngeen livrer leen seen ay kër. waaw dañu leen ñun on veut commander lu ñu lu ñu lu ñu xëddee. ay vanille la bëgg. vanille. Euh, Awa Traoré bu Barna De vanille choco. vanille choco. et euh, Bessel. vanille vanille. ak fraise. Fatou Kiné. vanille fraise Mamadou Ndiaye. vanille hein? vanille choco vanille choco d'accord ñoom Pape Jibril nag xaaral ma xeeril leen ci café Touba bi waaw yeen yam len ci café Touba bi rek yeen wa fofu. café Touba ba nga ñëw jox la len mako euh barade bi ak casse bi donc euh, lolu moy commande bi ay vanille choco choco ak yooyu Nonu. Mhm. et puis ngeen livrer ñuko Almadie, Almadi TFM ok amul ben problème dans combien de temps mais glace ou Mamma Mia la ñu bëgg ah mm, amul benn problème dinañ leen ko waaw glace su Mamma Mia Mamma Mia ñooy def glace yi Sénégal mhm. voilà glace ou Mamma Mia la ñu bëgg rapide wutal ñu mhm. voilà donc le mooy commande bi. ok de problème. merci. ça arrive dans combien de temps. ok mu ne waaw moom mi dina nañ ko livrer léegi ci kanam. léegi ci kanam d'accord ok on attend. ok merci beaucoup on attend en euh, yi jox leen ci ndimbali ñuy séddale dugg léegi di nga am 100000 ak euh, lu ngeen mën a dundee ay euh, sac yoo xamante ni def na ceeb suukar diwlin pomme de terre tàndarma saabu gel ak masque ñu xool téléspectateur très rapidement bu nekk ci ligne bi allo. salaamaaleykum. allo. allo. allo waaw. allo allo. allo waaw. ayca na nous euh, ñu euh, mën a ak euh, yeneen i parti ci quartier général bi tey allo. allo allo Allô allo. allo Allô allo. allo waaw voilà ñu jàll ci leneen bokk. allo. bu fekkee xëccoo bi xaw na miti ci téléphone yi 88 628. allo 72 86 allo. allo waaw. sëñ bi na def waay. maa ngi sant bu baax. noo tudd ak fan ngay wootee. Lamp Diaw daaru Darou Marnaan. Lamp Diaw Touba Darou naan waaw turandoo Cheikh Ibra Fall. eh yow day dama lay bàyyi nga commenté tuuti tuuti balaa ma lay jox àddiya Cheikh Ibra. waaw xam nga xam nga ñun dañoo bokk dañoo doon taal Cheikh Modou Fallou Fall moom si Modou Aminta. yéen a yéy. Aliou Bakar. bo bokk ci ñu yóbbu ndogu yi. waaw. saa bu ndogu yi jógee. Hmm. Hmm. na boo seet ñu tax photo Cheikh Rafal fukki Cheikh Rafal ak ñaar ak benn Serigne Touba maa ko yore. macha allah Fall. waaw na ci koor gi na ci ndigal rek di ñaanal Cheikh Fallou Fall ak Cheikh Moustapha Fall ñàgg fi lool te wér ak seen rak ak ñoom ñëpp. allahumma amin allahumma amin allahumma amin. di kontaan nag di kontaan nag ci suñ suñu jëwriñ jooju ngeen dalal muy Baye Ndiaga. Hmm. di ñaan Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool te wér. allahumma amin. tey jii daal ngeen xam ne laal ngeen mbar jërëjëf jërëjëf ci ndogu yooyu sax ngeen di joxe. ci ndogu yooyu ngeen di euh, joxe ñun bàyyi ñu def ci suñu participation rek. waaw dana ko mat de. waaw ñaar fukki junni rek ñaar fukki junni rek euh, yu ñu la yónnee mu doon participation wu émission bi ci barke Cheikh Ibra. loolu bu baax a baax a baax jërëjëf yéen a ko moom. ñu ngi xanaa xanaa dañ jërëjëf jërëjëf yéen a ko moom. jërëjëfati jërëjëf ma sœur. waa kay mbokk yi ñu tàmbali euh, jotaay bi ñu jagleel ki nga xam ne nii sànq ba tey maa ngi naan xajul ci quartier général hashtag bi Cheikh Ibra Fall la ci réseaux sociaux yi ngeen jàkkaarloo ak ñun en direct tey itam bokk ci inédit yi ñu leen di jagleel ci chaque saison bu quartier général QG 2020 góor yàlla yi nag ñàkk leen waxtaane sax wóorul. ndax defe naa euh, loolee la euh, Pape Djibril wax sànq euh, bëri na ci seen i njàngale bu ñu jaaroon ci yoon yooyu amaana mën nañoo bañ a échec. bëri na nag ci lu ñuy dal ci àddina lu mel ni crise bi ñuy dund actuellement kenn mënatul dem ñun sax émission bi gis ngeen ni ko organiser neexuñu. ci dandante ci ber ay journalistes et tout yooyu yëpp nag mooy ay xeetu échec yoo xam ne ni xëj na euh, ñoo ngi koy dund ndax suñu gàtt xel ci bañ di topp jàngale mag ñi. ki ñuy waxtaane nag di euh, Cheikh Ibrahima Fall tey ñu tànn koo xamee ni aku kàngam la sañ na ma ni docteur la wala professeur ci yoon wi euh, di Baye Ndiaga Diop moom def na introduction sànq di doon waxtaan woo xamee ni.

di la jaar ah. Fall am mbégte ah. lool ci sa ibité euh, tey ci jotaay bi ñu jagleel Cheikh Ibra ah salaamaaleykum. aleykum salaam Fall. waaw Baye Cheikh. waaw Fall. ñoo leen di ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar Fall. di sant bu baax di bég lool. jërëjëf Fall. ci ci bis bi ngeen jagleel sunu maam. jërëjëf Fall. maam Cheikh Rafal bis bi ngeen ko jagleel ci weeru koor wi. dégg hmm. nañ ci lool sant nañ ci lool. jërëjëf. rawat nag kooku ngeen ko jaarale ci moom muy sëñ Njaga Jóob hmm. moom mi nga xam ne ku yàgg ci yoon wi la nag jërëjëf ndax man de boo ko jëkkee gis boobu sëñ Cheikh Fall moo doon sëriñam hmm. ci njëkk a jaar jébbalu ci moom hmm. bokk yi nekk Touba Fall doon fa pot dugub man mbooloo ñu toppee ñu ni sëñ Cheikh Fall ñu Njaga jógal yëkkati sa kàddu soñ sañ santal ma mbooloo mi boobu laa njëkk a gis Njaga Jóob mii waaw boo ba léegi nag tàggoowuñu bu suñu seex làqu ba léegi tamit noonu la demee. macha allah sant nañ bu baax a baax bëgg nañ ci loolu daal suñu maam nag moom. Mm-hmm. comme noonu ñu ko waxee rek moom loo tàmbali ci moom di wax rek. Mm-hmm. doyut. wallaay loo tàmbali ci wax wax itam loo wax itam des dana des. Mm-hmm. waaye nag sant nañ ci bu baax bëgg nañ ci lool ñaan di di di bu baax tam ñooñu nga nekkal ci plateau bi ñëpp. ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen sant. jërëjëf Fall. ba ci sëñ Modou Mbaye gar mi moom yi. noo ngi sant baaduge ba ci imaam waaw noo ngi lay sant yow moom itam ak ñooñu ngeen toogal ñëpp. jërëjëf Fall. di sant gi itam comme noonu suñu njëkk a waxee rek tàmbalee na ko ci sëñ mun taxaa mhm. ci sëñ Cheikh Jimbo. waaw ba ci sëñ Abdou Khadi Fall mi nga xam ni moom la ñu àndal nekk fi. def Fall. man mi nag man sëñ Abdou Fall moom sëñ Mour Moustapha Fall. Mhm. waaw sëñ Modou Sa Fall ak sëñ Assane nag dañoo bokk ndey ak baay. macha allah noonu la demee. macha allah sëñ Assane nag dafa maa yar joxoon ma sëñ Fallu. Mhm. waaw man nekkoon fa moom fa laa nekkoon fa moom ba ginnaaw bi ñuy nelaw 68 booba maa ngi fa. Mhm. waaw fa laa nekk ba ginnaaw ba ba 73 la ma sëñ Modou Sa ñam soog a yeewi ma ñibbisi. ci léegi sëñ am di xarit lañ nekk noonu moom noonu ba sëñ Cheikh jëm mii tamit noonu comme lu mu lu wax rek dañ cay dem jaga moom moom xam na ma bu baax li ñuy wax ndax moom moom i jaga moom i sax kooku muy de maa ngi ci seere li jëfam hmm. yow di la xamal ne jaga mii de ay màggal la ngi nii yoo xam ne màggal gu mag gu ne dana ma yeewalu nag masha Allah moom jaga jóob mii ab taalibe dëgg la Baay Faal dëgg la du ko te te du ko yamale wu ko ci man saa bu jógee Europe ñëw ab camion lay dem duy ca daral ga hmm. ci màggal bu mag gi topp na noonu ñii man na maa lim lépp nag hmm. waaye nag ah boo limee da ngay jum te xaw ma moom ko noonam déet ndax moom day jëf te du ko wax wallaay faal loolu moom moom noonu la foofu mu ne wóoru yàlla foofu toogaay boobu de lu mu am ci yoon wi dong la ko jëmee hmm. ak seeti Cheikh Ibrahima Fall yi macha allah waaw waaye ñoo ngi sant nag bu baax nag di leen sant di leen xamal itam allah ji moo xaar ma. Hmm. alaaji Mor Xarma sama taalibe mooy lu muy jàngale jébbuloon ci man. fii lay liggéey caméraman la ci. waaw alaaji Mor Xarma sama taalibe bu baax la. moom dafa teel a toilette. tubaarkalla alhamdulilah. ndax sama <laughs> ba kii dem rek keroog rek yow am ñëw waa télé bi sax ñëw nañ ko. bi ñu yóbboo ndox bi ñëw na ba. macha allah ñoom ñëpp ay taalibe waaw baax na waaw ñoom ñëpp ba ci sëñ ah, kii Youssou Ndour nga xam ne moo yilif tere kër gi. Hmm. moom it noo koy ñaanal bu baax ko ñu gudd ci ànd ak wér. ku jar a ñaanal la. waaw noo koy ñaanal ñoom ñépp rek boobu ma kenn de. wallaahi ay ndooy baax nag. Ewa Ewa moom yi. Hmm. ñoom ñëpp parti wu ma kenn. jërëjëf Fall ñoom nag ba ji waaw nag moom nee ko ku ko bëgg laa nag. jërëjëf ko ma neex neex na ma lool. macha allah macha allah <laughs> bëgg naa ñu xamante bu baax a baax. yow nag ak yow Pape yow ma noonu laa bëgg ngi sëñ Fallu. Fall moo ma defar. ndax man sëñ Fallu man moo ma yar. moo waral sama coow li. waaw ba may dem te ba may dem ca Daara ji boobu gone gu tuuti laa boobu jumaay Tuuba ji ñaari soro yu soow yi képp fi taxaw. waaw foofu laa demoon ca daara ji nekk ëllëg ba ma jógee ëllëg mu yóbbu ndindi. Mm. noonu sëñ Ndiaga wax léegi ci soxna maam Sey. Mm. soxna maam Sey Fall mooy waajur sëñ Abo ñoo bokk benn baay. Serigne Abo Baraka ak soxna maam Bousso. wallaahi waaw noonu la demee moo tax noo ngi sant ñëpp nag. jërëjëf Fall gërëm ñëpp nag. wallaahi dégg nañu waxtaanu Ndiaga nag bu baax a baax a baax waaye nañ ko déglu bu baax te may ko tuuti rek. waaw kay. waaw noo ñëpp tey ñëpp nag di ñaan nag ndog yi ñuy liggéeyal maam Sey daal. lépp luñ ci amee yàlla yàlla nañ ko bokk ak yéen. jërëjëf Fall. yàlla nga yokk Cheikh maam Cheikh yàlla nga yokk. amin Fall amin Fall yàlla nga yokk lool. denc nañ la ci jibéy maam Cheikh Fall dugal naa leen. amin Fall amin Fall. denc nañ la ci jibéy Cheikh Ibrahima lañu la dugal. amin Fall. waaw dara kanam rek nga jëm. allahumma amin waaw jërëjëf jërëjëf bañ Baye Ndiaga tàmbali euh, ñu koy di ci dugali kàddu sax moo tax ñu defee nii euh, lii euh, sunu introduction la ñuy gërëm bu baax kee xamee ni moo di Serigne Aziz Fall moom Serigne Assane Fall taxawaayam rafet lol, momit it yoon la woon ñu njëkk koo dugal daañ ci toftal beneen sang waaye profito ci rek ndokkeel bu baax soxna Jabu Fall mu Chérif Assane Fall jot nañu yóbbanteem mu jëmale ko ci ki nga ni kiñ ciy toftal nag ci woote yi di nuyoo rek en attendant ñuy tàmbali waxtaan wi ba di développé li ñu fas yéene jagleel sii di Ibrahim euh, kooke di sunub sang di Sëriñ Yaaram Mbay moom it bu fekkee euh, noppi na ñu euh, jokkoo ak moom mu doon nuyoo ci guddi gi tey en attendant ñuy tàmbali waxtaan bi waa diaspora bi itam ñu ngi réagir boobu ba tey Adja Diastu Saw ak waa Espagne ñu ngi may nettali saa yu bàyyi njaga jaaraan foofu ñoom dañoo fonk lool Serigne Fallou bu leen bàyyi njaga séenee rek day bifurqué jóge ci Cheikh Ibra waxtaane Serigne Fallou donc yooyu yëpp ay xétum jaglé yo xamé jaglé la yo xamé ni amna ko ci walu pédagogie mu jëriñ ay nit fas jëriñ ñi ko xamutoon ndax tay dañoo bëgg concentration ci euh, suñu digg ak euh, Baye Ndiaga ak yeen téléspectateurs yi nga xamé ni yéen a ak ñun ci euh, télévision Futur Média minuit 46 moy dogo jot kon xam ngeen ni heure bi dama gul fenn ñu ngi jëm ak yeen xëdd ndax Cheikh Ibra xajul ci quartier général ñu ndokkeel té ziar bu baax. serigne yaram bay yaram ñu ngi lay nuyu euh, di la euh, ziar di jéggalu ci dérangement bi waye am bekté lool ci euh, ak yow tay ci guddi gi nga xamé ni ki ñuko ko mën nañu fé defi at ci di waxtané ñu ngi lay ziar bu baax mbay ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Cheikh mm. ah ñu ngi yóbbante nuyu bu baax di nuyu mbolém ñi déglu ñepp mm. di ñaan li ñu doon tawat ñu koy teewat ci réew ay bitim réew saa mburum ko fi ne dañ tey mu ànd ak koor gi dem di nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha hmm. di rafetlu kàddu yi nga xam ni Baye Ndiaga Diop wax na ko hmm. euh, lépp sëñ Mountakha ko moom wallaahi lépp moom la hmm, di ko jaarale ci kàddu sëñ Cheikh jëmb ak njabootu maam Sénégal Fall yëpp ñeen invité nag bi ñu saa borom booleeg moom ak sëñ Cheikh Fall Baye góor toll na ci fii ñu toll ñeent fukki at ak benn kon loolu tuutiwul mhm. moom léppam suñ Cheikh Fall bàyyi góor laay sëñ yaa mu bokk nag fi mu war a bokk mhm. ci ci ci ci ci ci cosaan wëlbut ko jël lépp jaay di ko taalib mhm. ñu ànd ànd bu rafet suñ Cheikh Fall dimbali ñu ba mu wér ni dimbali ñu masha Allah te def naa fii may waxtaanee bu demee ni Pape Ndiaye doy ñi mel ni Momar Diop mu nga xam ne mu ngi denc loolu sëñ Cheikh Fall Baye Góor hmm. ñoom Jabel jóob bu bari ñoo xam ni eh, maanaam fiñ toll ñu ngi teewlu jotaay bi macha allah kon Baye Ndiaga Diop ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm bu baax li mu am te koo jënd sëñ Cheikh Fall dimbalu ko bu wér jaayante dimbal loolu nag ñun ñëpp xam nañ ci dara ci dara macha allah ñëw sëñ Cheikh Fall Baye Góor ca Casamance képp hmm. ak lu bari soo xam ni bu loo tibbalee ci alxuraan tibbal la ci àddi tibbal la ci waxi sëñ Cheikh Fall bàyyi góor ak mag ñu baax wallaahi kon loolu garmi wax mm. moom alaaji garmi wax lu wér la mm-hmm. moom deful auto satisfaction waa mm-hmm. di nuyuwaat mbooleem ñëpp ñëpp teew ñëpp di leen sant di leen gërëm mm. di xam ne ku déglu da nga jëriñu mën na cee jëriñu àdduna mën nañ cee jëriñ wallaahi wallaahi mbay waa di nuyu nag sama li nga xam ne mooy denc sama doom di nuyu njabootu mm, Mbay nga xam ne ñëpp di ko teewlu Allah ñaan di jërëjëf sëriñ jërëjëf sëriñ sëriñ Yaram Mbay euh, ñu ngi lay euh, gërëm bu baax kon El Hadj alt ci euh, Ibrahima Diagne intellectuel bi mu sikaral ñu ñu doog a àgg ci beneen plateau bi fekk fa sëriñ Mamor Mbacke Pape Djibril Fall tàmbali waxtaan wi nag ak Baye Jaga naa di wax ne rek. Euh, Baye Cheikh sang yaa ngi noonu. Hmm. ñu dugg léegi ku ci nekk cër bi nga am ci maam Cheikh Ibrahima Fall. Hmm. ba pare delloo bay Njaga Jóob mu baax mi cër. Hmm. loolu moo lay wan ne ànd bu yàgg rekk moo am sa te lalu ci dëgg. wallaahi lu yàggul neexul. ndax tudd na léegi sunu sang ba baax ma. Cheikh Fall Baye Góor. nga xam ne Baye Cheikh ku ma sa tàbbi ci ku sant Mbàkke sa tànk bi doo ko tàllal soo ko tàllee du suñ su dem jotee doo yóbbaale tànk loolu moo lay wan ne ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ñi le lépp loo xam ne lii ku sant Mbàkke tàbbi na ci ñoom lu ñu am ñu yaa ko moom Baye Njaga wax na dëgg de ne jotaay bii sëñ Muntaxa Mbàkke moo ko moom wallaahi kooku ñépp bëgg nañu ci tey wallaahi kon loolu moo lay wan ne dëgg-dëgg Baye Njaga mi le invitation bi ñu la invité àddina yëpp di la bëgg a déglu dañu wax ne daal yàlla nañu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani tam àgg ci alhamdulilah di allah dañ ko choisir ki ko choisir Alaaji Njaga moo ko choisir hmm. waaye choisir na ko yaru hmm. choisir na ko baax choisir na ko gore choisir na ko koo xam ne ki hmm. du waxee mukk bakkanam te réew miinu ne di Sénégal dëgg-dëgg ragal ak xoxotal mën na fi nekk ci kaw nga am bëgg nga am bëgg-bëgg yoo xam ne ci sa xol lay nekk nga di ko bëgg di ko choisir te loolu toll na ci waaye deful loolu mhm. réew mi rek la delloo boppam mhm. Mhm. kon mbokk yi ñu euh, tàmbali mu biir rek ñu tàmbali waaw saxaar bu jubee gaar mu war a def di ndokkeel sama benn jigéen boo xamee ne papa yi soo da kase waaw doom bu jigéen bu mu am Cheikh Ibra la ko tuddee. Eh, loolu loolu moo lay wan ne. donc Lamp Fall kenn du moom Lamp Fall. Lamp Fall rakk la ci Soda jigéen la. waaye ah, waaye juru ñoom Soda. bu am doom bu jigéen tuddee ko Cheikh Ibra. tuddee ko Cheikh Ibra wallaahi waa Njaarim nag ñoo ngi dégg ndax man ëtt boobu fa la kii wax léegi man alalu alalu Cheikh Ibra laa de. wallaahi. ndax ma Sidi. alalu Cheikh Ibra laa. Hmm. ndax ma Demba Seen. alalu Cheikh Ibra laa ndax alaaji mu Gueye ma nga xam ne ma nga ca pencum boppam ci biir Njaarim hmm. wax naa la ko keroog soo fa tàbbee seet ne waxtu yu jot na nga ne da bëgg a julli. dañ naan la foofee de baax na duñ la ko tere nag. jërëjëf. loolu lan lay wax mu nga kon euh, ñu bàyyi Ibrahima. Ah, ah. xel dem ci sama benn yaay ju baax macha allah laataay loolu. Hmm. di wax bay Ndiago Diop ne danoo bëgg. macha allah kontaan lool. Hmm. ndax ci waxam. Hmm. dafa tàmmali tudd qualité. ba lu bare yoon. <laughs> qualité tudd qualité. tudd valeur. Ah. tudd ne toogeew fi naf soom <laughs> kon wax dimension am jëm ca yàlla. Mm. waaye borom bés bi itam moo ni mel macha mm-hmm. allah. Mm-hmm. dañu nekk xale bu ndaw sopp ko. Mm-hmm. dañu doon bëgg sax di wax tey ci philosophie euh, euh, euh, pap Djibril ñu ngi koy nuyu. Mm. soo bëggee maandu danga naan nigal ma yor ji koy bàyyi faal. ñun ñëpp dal nañu macha allah. kon kontaan nañu bu baax. ci seen teewaay di wax ne sunu yaay ami aan bu nu tuddee njabootu Cheikh Fall Baye góor te moom tudd nu ko sax xam naa dana jaaxle kontaan na lool moom itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax di ndokkeel euh, sëti Cheikh Ibra Fall yëpp macha allah sunu xarit yooyu duñu lim duñu liim mm-hmm. waaye bare nañ koy soppeek xarit macha allah macha allah kon mbokk yi bu ngeen noppee Euh, Fatou Kiné Mamadou Ndiaye ak internautes yi Bessel euh, Dieynaba ñu tàmbali ak euh, Ibrahima Diagne mu am lu mu ñu bégalee ci ubbite si kër lay doon ci guddi gi ñu jagleel Cheikh Ibra Fall. الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم أنزل منيا دل خلق كل الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم أنزل منيا دل خلق كل مي. على الذي زاد في الأربع والأجم محمد خير خلق الله قلبي من تجي أو ناو في الأول والنخام من تجي أو ناو في الأول والنخام خامي وبعد فالقلب من اليوم ذا ألام من كثرة ذنبي والآفات والخمام فقلت ذا توبات لله من ندامي أستغفر لا أمجو بالفلك في سلامي على أباب من ديار ملتتم على أباب من ديار ملتتم ودود بالخير منتبئ جسمي ضعيف لأس أمن تولب وبان در وخل بخير منتبئ فخلد مستغفرا ربان ألو سبيل أستغفر الله منجي مستجير بي إذا ألم بي درون من الألم إذا ألم بي در من الألم كدا تري خلقت كل زمن فخلت طالباه رانا الغفور إذا أستغفر الله فار الذنوب لمن بالانكسار أتى وذل والندم ذل والندم أستغفر الله قد أماته دداك من ددا و ضميري ومن فكري ومن كلمي Allah kon mbokk yi mu ngoog ñu euh, fas yéene tàmbali waxtaan bi euh, di euh, ziar ki nga xamante ni mooy directeur général bu groupe Futur Média Birane Ndour moom itam ziar ak encouragement ak félicitation jóge na ci moom Euh, ñu ko ci gërëm bu baax ci euh, taxawayam donc biran euh, ak équipe yu groupe bi yépp moo xam directeur bi bu télé bi di Ndiaga ak Bouba Ndour mi nga xam ni moo waral li yépp nag momit ñu koy gërëm bu baax kon Baye njaga defe naa balaa ngaa wax dafa am loo xam ni jànge naa ko ci ñoom Moussa Mam Mor si karuk baatu ilaha illallah munul ñàkk ñu delluwaat ci ak euh, Ibrahima Diagne.

bi ci njëkk mooy dafa mel ne dañuy bëgg a waxtaanee Cheikh Ibra waaye Cheikh Ibra njariñ la njariñ la dañ koy def ci bool bu set te bool mënee su cee def lu ñuy jariñoo lu dul dafa set laa ilaha illallah ji nag mooy raxas bool bi fan laa ko teg waxuma waxi jaahil allah bi dikrillahi ma inal xuloob alxuraan ne nit ci tudd yàlla ci la xol yi di setee ci tudd yàlla ci la xol yépp di dale te nag ëllëg yomal xiyaam ñun ñëpp fii la ñuy mujj muy mm-hmm. bala ñoo tàbbi aljanna faw ñëpp danañ leen laa ilaha illallah la muy firi mooy amul benn buur boo xam ne war sa ko jaamu jaamu ga am njariñ ñàkk gaa jaamu am lor ku dul suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. moom mi nga xam ne mooy xalimul xabiir Cheikh Ibra nag dafa fekk fi nga xam ne fa la ñëpp di mujje Cheikh Ibra dem toog fa di xaar muy ca yàlla moo tax laa la illallah Cheikh Ibra Fall rek moo ko moom jërëjëf kon mbokk mi kon jataay bi sedd na mhm. xol yi sedd na mhm. li ci des mooy def ci xol yi kon ñu tàmbali waaw mhm. Aïcha kon Pape Djibril yow laay njëkk a jox bu ko defee ñu jébbal kàddu gi ki nga xam ne nii mooy Baye Ndiaga Diop euh, jërëjëf Pape Cheikh jërëjëf euh, sëñ Mamor sëñ Ndiaga euh, xam naa ne laaj bi moom mooy laaj bi ñuy faral di tàmbalee bu dee ñoo ngi xencu koo xamante ni dafa marqué jamonoom li ci njëkk mooy ñu campé décor bi xam moom mooy kan xam fan la gane àdduna xam ci fan la bokk ngir euh, fan lañ ko jaarale ci njëlbeenam ginnaaw bi yeneen laaj di ñëw sëñ Ndiaga bismillah kay jërëjëf euh, Pape Cheikh mm-hmm. jërëjëf Mamadou Mbaye Garmi jërë ngeen jëf noo ngi sant bu baax Mbacke du Pape Djibril ñu ngi leen di sant jërëjëf Baye Ndiaga euh, ngeen may ma rek mm-hmm. tudd jàmbari fakki tëdd Cheikh Ibra joo xam ne lu ma am baayam la muy sëriñ seex Ndigal Fall ndax baayam bi ma ko jëkkee jox loxo la ma ne fi nga tàmbalee ba fi nga yem nettali ma ko ma wax ba àggal mu ne ma loo nar ma ne ko jébbalu ci yow te boobu noruma woon loolu loolu nag dinaa ci waxtaan ak yéen sëriñ Saalihu Mbàkke sëriñ Abdou Cissé mu sëñ Mor Mbaye Cissé da ko ne lu la gën a jaaxal ci sëriñ Touba yow sëriñ Saliou mu ne ko léppam jaaxal na ma de waaye daal lim daan def naroo dara mu fexe ba nga nar ko moo ma gën a jaaxal ci moom waxi mag laa leen wax de loolu yombul de nit narul dara nga fexe ba mu nar sëñ Saliou nee na bokk na li ma gën a jaaxal ci ndax dafa am ko àndoon ak Lat Joor ba mu daanu deqale mu ne tàmm naa pay maa ngi ñëw de tàmm naa pays te dégg naa njaareem neex na ni pays yi neexe woon nee mu dem nit ci biir nit ñi nit ñi ne ko loo fiy def mu ne damaa bëgg a jébbalu fekk nee na dafa bëgg a nekk ci sëñ Tuubaa ba nawet ba mu dem yori boppam diggante boobu nag mu nekk ci xéewal yi amoon njaareem dégg nga li sëñ Moussa Ka waxoon li beeg si keeg sax faraan lañ daa diwoo muy wala ngaan ñu xel ci kopp yi di naan oto yi korne xarnu bi njaareem neexoon na ba fa sëñ bi ne mu ne nag daf nekk ba nawet ba sëriñ bi ne lañ ma ko woowal bi mu ñëwee sëñ Tuubaa ne ko lo lo ana loola tax a jóg mun ne ko bëgg a jébbul sëñ Tuubaa ne ko ba kañ mu ne ko ba faw sëñ Saaliw nee na kooku nekk na fa di liggéey ba faatu te nawet ba rek ko ko fàndi woon sëñ Tuubaa nag ci lañ war a tàmbalee wax na sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ne ko sëñ Mat Lamin da koy bës ba bërset mu ne ko Ahmadu Lamin xam nga lu ma yor mu ne ko déedéet mu ne ko wa huwal qaahiru fawqa ibaadihi mën la ko yàlla jox yalla note gi mu noot jam ñep te ken teewu ko ma ngi sama loxo. wa ko bind nako de de. nga li sëñ bi wax. mu ne ko kenn tëwuma nag. teewu ma bul mukk ku nekkul ci man nga defene daf maa man ma jublu mu ñew ci man ndax kuma jublu nga fanan ci fi waaye ahmadu ba bis pénc li ma def yep def naa ko ni njaago bay rab ay sorom denc ko. noppi naa ci yoon damay jékki-jékki rek génne benn sor ñu naan lii lu bees la waaye sama lépp noppi woon naa ci ñi xamoon ne sëñ Muntaxa mi sëñ Tuubaa la yàgg na de loolu ay mbóot la duma ci àgg ñi xamoon ne muy sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa yi sax xamoon nañ ne sëñ Tuubaa la mu ne ko waaye Ahmadu sama yoon wi buñ demee ba ca kanam ku ci dugal lu ci warte bokk may jóge fa ma ne ñëw seppi sa loxo ba mu set ber la ca àll ba yoon wi wéy kon nag noo ngi gërëm sëñ Cheikh ndigal xam nga Cheikh Ibra soo koy waxal dara te laaloo ci sëñ Touba fa mu ne la naan kee xamuma moo tax ma jëkki ci sëñ Touba ah. lu nekk dafa am yoon de Cheikh Ibra Fall loo wax ci moom jéggi ko te waxoo sëñ Touba amu ci soxla looloo tax ma dugal lii ci sëriñ bi balaa may jëm ci laaj yi may nuru sëñ Cheikh Ndigal Fall mi nga xam ne baayam dama ko nuyu rek mu wax ma loolu ma jébbalu ci moom mu ne ma jógal taxaw wax ak jàmm fi saa si te mu ngi may soog a gis ba léegi nii jógal taxaw jooju moo waral guddi gii Cheikh Baye Góor <laughs> ni ah, ah, tabax naa ab cantine ba mu baax ma dem fekk ko jox ko caabi yi mu ne ma lii lu mu doon mu ne ko damaa bëgg a liggéey ni ñëpp mu ne ma dangaa xeeb Cheikh Ibra Fall nee na ma ne ko xeebu na ko de Fall mu ne ma xanaa xamoo yow boo liggéeyee doo am dara feeg yaa ngi naan Cheikh Ibra Fall nee na lu nit ku yiw am di ko am cële sa lépp ne moo waral guddi ji Cheikh Baye Góor mooy bàyyi sëñ Cheikh Ndigal may nuyu tamit ngeen may ma sama sëriñ Cheikh Touba Sam mu sëñ Moustapha mu Cheikh Baye Góor di nuyu sëñ Cheikh Mbawar Fall nuyu wu ko woon di nuyu sëñ Abdou Roqe mu sëñ Mortala di nuyu sëñ Assane Fall mu maam Saliou Fall ndax maam Saliou de ku wax Cheikh Ibra boole woo ko ci doo dem baax di nuyu xalifa sëñ Basiiru Awa Jaxate muy sëñ Aliou Badara Fall di nuyu sëñ Fallum sëñ Muudu Aminta ah sëñ Manel Fall nag ñun ñëpp sunu lépp la mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax Fall Ndiaga ku baax di nuyu Galas Kantoom sëñ Galas mu sëñ Alaaji Baara. Mm-hmm, moom Alaaji waaw sëñ Galas Kantoum. mu ngi mu ngi yëngu moom yëngu moom dafa teel a yëngu tey. waaw kay daf maa woo daf maa woo sànq ne ma. Euh? li ma métti rek. Euh? mooy sa mbubb nga war a sol bay waxtaan. dafa teel ma ne ko mbubb mi ma joxoon laay sol de. wallaahi. sëñ Galas Kantoum mu ne ma waaye lenn laa ci jublu. Mm-hmm. doon taalibe sëñ Tuubaa bu mu nangul rek. bëgguma leneen. Mm. kon yàlla na ko am ci barki sëñ Fallou. waaw di nuyu sëñ Moustapha Xasida di kenn ci man defal na ma loo xam ne du toog fii di ko wax waaye yàlla na gudd fan ñi ma àndal xam nañu fi ma sëñ Moustapha Xasida féete macha allah waaw ah, euh, di nuyu euh, njabootu soxna Faat Fall Seex xanaa xamaloon ne soxna Faat Fall mooy tawu Seex Ibra ni soxna Faati Ja nekkee tawu Sëriñ Tuubaa soxna Faat Fall moom duñ ko faral di tudd. la waaye moo jëkk a tarbiye sëñ Tuubaa ci jigéen ca Jolof laxasaayu di bojj di root di bay ba sëñ Tuubaa gërëm ko. première yaay yaay Fall. ba ko sëñ Tuubaa gërëmee dafa woo Cheikh Ibra Fall lu mat a xam la nag ba mu ñëw mu ne ko damaa bëgg a joxe sa doom Cheikh Fall. Cheikh Ibra ne ko xanaa Mbàkke dangaa yit ne damaa génnoon ci li ma wax Cheikh Ibra sëñ Tuubaa ne ko dee dee wallaay mu ne ko lu tax nga di ma tàggu ci sama njaboot man la ma waxoon duma ci jóg mukk faal te ngoro ngoog de ma xamal leen ne leen Cheikh Ibra Fall jàngal nañu li gën a jafe ci jamono gore waa këram yeeg gore ba léegi ngor ga ñu waxoon ak sëñ Tuubaa ñu ngi ci jóguñu ci de kenn ku ne yaa ngi bëgg a def waa kër sëñ bi euh, moroom ak naan ak taalibe nii la ak naa waaye waa kër Cheikh Ibra juguñu ca la Cheikh Ibra waxoon ba tey te moo waxoon ne sëñ Bamba dinaa la liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal. Eh waay ñu ne bàmmeel buy liggéeyal nit nit ku faatu xamoon ngeen ne barabu Cheikh Ibra Fall bi liñ fay sànni ci alal kenn xamul nu mu toll. sëñ Modou Aminta dafa am ko mu wax ne ko demal ñu jox la alal ja. mu ñëw maa ngi ñëw di Pape Djibril introduction la. c'est normal. demal ñu jox la alal ji. Mm-hmm. macha allah dañu sànni ci barabu Cheikh Ibrahima xamoon ngeen ni ay millions lañu fay sànni. Mm-hmm. te lim ko noonu danaa la liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal. Mm-hmm. keroog sëñ Modou Aminta Fall kenn du moom. yàlla na ko yàlla yokk leer. jihaatkat bu mag boobu. def na ci yoon wi lu ñëpp gis. maa ngi nuyu sëñ Fallou xalifaam kooka ba mu demee àdduna jàpp ko mu jël lañu dajale ci barabu Seex Ibra wàññi ci ñëw jox sëñ mu Aminta lenn sëñ Modou Aminta woo doomam ne ko wàññil waa ji di wax sëñ mu Aminta ne ko ñaata la mu waa ji wax la mu doon dëgg-dëgg fàtte ni jël na ci Seex Ibra kenn mënu ko nax ndax naxul woon sëñ Tuubaa sëñ Modou Aminta ne ko wàññi nañ ko waaye matul de waaye waññi ne matul wóorul da ngay wàññi jox keneen mu waññi jox doomam doomi sëñ mu Modou Aminta waññi ne ko ah, Fall li nga wax la de moom li mu wax du noonu mu ne waññi sëñ Modou Aminta maandu waññi jox sa doom mu waññi wóorul dangay jox jàmbur mu wàññi <coughs> moo tax ku naan Baye Fall yi jubuñu ak di dégg li ci mbedd mi ñoo ngi ci ñëw. loolu moom danañ ci waxtaan tey ba mu leer ñëpp ñëpp. ne lépp lu ñuy wut muy njariñ Cheikh Ibra ko ëppale nit ñi. kooku wàññi rek ka andi xaalis ba daal di jooy. ne ko fal àddunaa ma jàpp rek tax ma jël ci suñ ma demante ne ko dama laa bëgg a wax addiye ji ñu sànni ci barabu Cheikh ni mu demee. saa bu àggee ci ab lim Cheikh ñëw fii. ne ma nangam la nañ ko jël jox ko ki fi nekkal sëñ Touba ndax dama ko waxante woon ak moom mm-hmm. bi nga laata ñëw la ma Cheikh Ibra wax ñaata la moo ne woon sëñ Touba dama lay liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal ba tey bëtam jógul ci liggéey boobu kon mm-hmm. Cheikh Ibra mm-hmm. danañ waxtaan ci moom bu ñu demee ba ci kanam Pape Djibril nag dafa laaj laaj boo xam ne bu mata laaj la ndax nit ki fokk nit ñi xam mooy kan ndax Cheikh Ibra Fall bu fekkee laaj nañu euh, ci nasaraan yi mm-hmm. boo demee ci fiche de renseignement am mm-hmm. euh, euh, dañ lay wax ne la mm-hmm. renseignement sur sa famille sa généalogie son origine xam nga moom la laaj ñu fils de Amadou Fall et de Seynabou Ndiaye décédé fils de renseignement mo nek ni son grand-père Atouman Fall était le fils du Damel Dekalo kon Cheikh Ibra Fall ku ne xam na ne ci askan wu tedd la bok ñu wara mom kadior kon kenn gënu ab juddu mu nga juddoo dëkk bu ñuy wax feeñi jamono dëkk bu ñuy wax Touré Atoumane Fall foofu la ganee jamono ba mu ganee jamono daa bari lu ci xew de ba mu ganee jamono maam Seyna bu Njaay mii wuy juram mag ñëpp nee nañu ba Cheikh Ibra ganee jamono dane na ma ñëpp wuy si ñëpp teew mu ne andi naa mbër ci làmb ji xaw ma nag fu muy bàkkoo ah maam Seyna bu Njaay mooy ndeyam Ahmadou Roxee Fall di baayam Ahmadou Roxee Fall ko jàngal alxuraan mook maam Saliou Fall waaye nag ba ba ba mu ganee jamono ba ba ba ba maam Seynabou Ndiaye wax loolu ci moom la Cheikh Ibra doonoon kaawteefu suñu borom jaaxal ñépp xamoon ngeen ne Cheikh Ibra bi muy gone daawul rëbb rab wu mu séen dalay dàq ba jàpp la ak loo gaaw gaaw ak loo làqu làqu ndekete mu ngi wane ne maa nar a gis sëñ Bamba te du ma fital duma dóor duma xeex daawul rëbb mas na dàq kéwél ba jàpp ko Seex Ibra bi muy gone kéwél gi di yuuxu mu bàyyi ko ñu ne ko yow nag Seex Ibra jaaxal nga nu lan moo tax nga bàyyi kéwél gi mun a xanaa déggu leen li muy wax da doon wax ak bàyyi may te gisul sëñ Tuubaa de sëñ Tuubaa kenn xamul lu mu doon la tax Seex Ibra ras ko danañ ci ñëw mu ne xanaa déggu leen li ma kéwél gi wax booba waxi dof lañ ko teg kéwél guy wax mu ne waaw kéwél gi nee na dafa bëgg a nàmpale ay doomam naa ko yërëm ngir yàlla te yërmandee jaam ñépp a ngi sama loxo maa war a wan nit ñi naka la te booba xamaguñu loolu waaw mu nee na moo tax ma bàyyi kéwél gi mu dem léegi foofu la gane jamono ci ñooñu la bokk maam bu Ndiaye mi ndeyam di njari njare maam dem ba Njare mooy maami Cheikh Ibra di ñoo xam ne lasraar ak sunguf ak reen ku xam njare xam nga ne Cheikh ñooñu bokkuñu ci ndeysaan Serigne Cheikh Fall Baye góor nee na ma benn tubaab dafa mës a ñëw njare ne len damay laaj lemp ñu ne ko njare dañu am gal goo xam ne bi fi mësa ñew laaj lemp fal faliku. mu ne len man de duma falliku di ngeen fay mu dem wa njare yeb dajalo ne buñ ñu ñëmé te kenn ñoo am amna lu xew fu am fu njare nek nek tay ku tekki nañ fa yónnee sëñ Cheikh Fall Baye gor ñu yónnee ci Cheikh Ibrahima Ndiarène lu lu leer rek laa lay wax nag. romb naa génn góor ci jumaa jeeg gaa yi nee nañu xaw ma ko man sëñ Cheikh Fall Baye góor nee na ma te ñu yónni ba mu ñëwee wax ko ko ne ko na nga ñaan nag Fall ndax kenn mësuñoo ñeme te ñeme nañ ñu. mu ne gi ma neewoon ci seen biir te wuyaguma sëñ Bamba moo taxoon ñu ragal leen dana dellusi de. su ngeen bëggee ñu ragalaat leen ñëw leen joxe seen bopp la la taxoon ñu ragal leen yót naa ko sëñ Bamba kon Cheikh Ibrahima borom askan woowu la ci ñaari wet yëpp dafa donn sëriñ donn démb loolu moo tax mu mën a incarner lii mu incarner xam nga lu tax valleur la Cheikh Ibrahima taalibe bi taalibe gi mu woote ku bokkul ci askan wu rëy boo ko wootee ñu ne da dul dara moo tax ngay raam <laughs> ah am na yonent boo xam ne bi mu wootee aw nitam dañ ko ne ñi la wuyu ñëpp hum arazilu naa baa di ra yi ñi ngi ci askan wi ñoo la wuyu moo tax mënuñu laa gëm sëñ Bàmb résoudre loolu àndal <coughs> ñu koo xam ne kenn gënu ko ci ci gi ak ci wet gi mu ñëw wane ak taalibe ñu xam ne ak taalibe day lu war waaye du ak càggan du ak ñàkk doon dara moo tax ku doon dara dëgg dëgg dëgg dëgg mooy doon taalibe dëgg dëgg dëgg mu jariñ gisoo ak taalibe ku doon dara dëgg ko mën a doon te nit ñi dañ defe ne ku doonul daraa koy doon Cheikh Ibra nag foofu la bokk ci ñooñu la jóge man am naa arbre généalogique yu Cheikh Ibra ba ci Seydina Omar Seydina Omar ibnu Xattaab mooy maamam maam ci kaw maam am naa am naa kayit gi sëñ Bakke Ndiaye Abdou Socé mu sëñ Abdou Socé Ndiaye mu Cheikh Ibra moo ko joxoon ma nga jaar ci Njaajaan Ndiaye jaar ci Abou Darda foofu la Cheikh Ibra jaar Seydina Omar mi recentré ñëpp ci diine mooy maamam te loolu senegal dañ ko war a xam ah, yëfi démb yooyu dañ ko war a xam Cheikh Ibra dafa donn saxaaba yi donn Seydina Omar taxaw taxawaayam ba nopp mooy maamam dërëtu Seydina Omar moo ne ci Cheikh Ibra looloo tax mu jàmbaare njàmbaaruk Seydina Omar la doon <laughs> ak fitu naa Omar ak woy Seydina Omar ak dogoom waaye sëñ Moussa Ka nee na da caa boole nag melaw Aboubacar Saddiq ak Seydina Ousmane ak Seydina Aliou loolu dinañ ci ñëw ci waxtaan waaw kon boo ko dee seet foofu la jóge waaw kon loolu mooy mooy kii bu njëkk bi waaw sëñ Mamour jërëjëf mm. euh, macha allah Baye Ndiaga ni mu koy indee am na solo ndax xam nga askan moom dafay lu am solo loo xam ne alxuraan daf daf ci insisté mm-hmm. yaakaar naa Sayyidatuna Mariama keroog ba ko aw askanam di yedd mm-hmm. jàpp ne dafa def lu dul noonu lañ ko wax muy maakaana abookim ra asawin wa maakaana tumuki baxiyan euh, Seydina euh, xodar itam mm-hmm. keroog bi nga xam ne ci la yëkkati miir ba wa nga xam ne ca la alal ja nekkoon seen bàyyi denc leen ko te mu daan woon ci seen kaw ba ko alxuraan di wax dane wa amal jidaaru fa kaana li فلان ماني يتيمين في المدينة وكان تحته كنس لهما واي وكان هوما صالحا ممن يتم تدك أسكن لي القرآن وحنا دنا تحنو فقول لا إنجني لي وخمنة سينك باخ ما تحنا أمكو ولسينا آمنو وتبعتهم دريتهم بإيمان الحقنا بهم دريتهم وما ألناهم من حمل من شيء مويلو أمسلو تايد والبلد تايب يخرج نباتو بسير به ما ينكو وخي كلا لجي بجي سيدنا عمر بن الخطاب ما يسني برام بفكر دفن نم باخ النت دايفك كي أسكن وباخ مسيح يكوفر Euh, Cheikh Ibra kon mën saa jàpp ne mooy gën gi askan hmm. bokk na ci ñi gën askan waaye bokk na ci itam ñi gën jëf hmm. euh, ginnaaw Cheikh aw askanam hmm. tedd ngaam daraja ji nga xam ne moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala defaloon lépp nag mu jaay ko jënde ko ak taalibe waaw loolu moo ñuy bamax ci question bi ci topp mooy diggante Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Touba fan la Cheikh Ibra jaar bëgg naa ñu ñëw fi njëkk muy agsi ci Serigne Touba ci lu mu nekkoon nan la dikk ci nan la dikk ci Serigne Touba ak lu dig njëbbal ak Cheikh Ibra num ci dugge waaw góor waay Mbàkke jërëjëf yow kat yow kat baax nga fi kat <laughs> wallaahi waxee sa wayjuru jigéen laa xam ne. Mm-hmm. Euh, sëñ Jibril Fall nekkoon ndeke jotaayu jotaayu Cheikh xam naa xam naa way juróom bu baax. ànd na ma ak sëñ Cheikh Fall góor ba tay taxaw buntu kër waay juróom. kon xam kon kon bu waxee ni Mbàkke la sant waaye xam naa xam naa fi mu bokk xam naa li mu doon asaar amul alhamdulilah sëñ Moustapha Bétou mooy baayam loolu la ma wax xam naa ko mm-hmm. boo ko defee nag Cheikh Ibra mm-hmm. ci njëlbeenam dafa mokkaloon alquran parlitil et écrit-il ñu ne oui mu ngi ci fiche de renseignement te kat ñëpp nee jànguloon waaye bàyyi ma ko jàngal Ahmadou Roqee Fall mook maam Saliou ba Cheikh Ibra ni meloon ci njàng sax dafa jaaxaloon ñëpp lu mu dégg lu mu dégg lu mu xam xam ca loo xam ne ka koy jàngal du ko xam am njàngam noonu la bàyyam wax ne noonu la demee woon amul nag téere bu ñuy jàng ci réew mi te jàngaluñ ko amul amul lu mu war a xam te xamu ko jàng na lépp xam lépp ba noppi liggéeyal baayam ba mu gërëm ko liggéeyal maam Seydou bu Njaay ba mu gërëm ko lu jiitu nag maam Saliou Fall rakkam ñoo bokk ndey ak baay mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak ñoom ñoo ma nettali ne ma maam Saliou Fall danaan jékki-jékki ne ko Ibrahima mu ne ko waaw sëñ Tuubaa du kenn de mu ne ko sa sëriñ bi ñëw na fi bi te booba wooteegul yoonu murit de taxaw na fii ci bopp ci sa bopp lal bi di la xool ba bërset Cheikh Ibra ne ko boo ko defetee xam nga nooy def danga nga may këppal tànk bi maam Saliou ne ko koo xam ne buy dugg ci néeg doo ko gis buy génn doo ko gis. nooy tànkam. mu ne ko loolay tax ma xam ne moom la moom bu duggee ci néeg doo ko gis waaye boo këppee tànk bi mu des fa. waaw Cheikh Ibra ba muy xam sëñ du fii de. est-ce que. Hmm. dégg nga loolu. kuy koo xam ne buy dugg ci néeg doo ko gis. buy génn doo ko gis. te boo këppee tànk bi gis ko. Cheikh Ibra sëñ Tuubaa danaan taxaw ci boppu lal bi muy tëdd ba bërset. maa la ko wax maam Saliou ko daan gis mu xëye sëñ bi xëyati ñëw taxaw di xool Cheikh Ibrahima fi mu tëdd ñoom danoo yàgg de hmm? dëgg la ah, sëñ danoo yàgg maam Saliou këpp tànk bi ne ko biig sa sëriñ bi ñëw na fi Cheikh Ibrahima ne ko ma xool tànk mu ëbb mu ne ko ah, kon moom la waaye Cheikh Ibrahima ne tekk sëriñ bi di fa ñëw guddi gu nekk di tiim Cheikh Ibra fi mu tëdd maam Saliou ne ko demal nga wuy ji ko wala ma dem wuy ji ko te kon may doon sa kilifa te munta ne te booba Cheikh Ibra demagul ci seigne Touba demagul maam Saliou ne ko da ngay dem wuy ji ko wala man ma dem wuy ji ko te bu ko wuy jee doon sa kilifa te munuma la yilif ndax kooku ku ko jëk a wuy ji yilif ñi nga bàyyi ñooñu bañu xam seigne Touba yàgg na de <laughs> booba booba kenn du wax murit bamba ji la ñuy wax sëñ Mbàkke Njaay Abdou Socé moom sëñ Abdou Socé njaayum Seex Ibra nee na ma booba kenn daawul wax diw murit la diw dafa bamba ji ñuy wax Seex mm-hmm. Ibra tàggu maam ne ko maa ngi wuy ji sama sëñ bu baax ba waaye dama koy wër nag màndarga ma yam ma joxoon mm-hmm. yam ma waxoon mm-hmm. laay wër topp màndarga yooyu ba gis ko Seex Ibra nettali na ne sëñ Touba da ko xamaloon ne ko bu demee jamono sama doom yu góor yëpp awliyaayullaahi la lañu bokk duma am benn doom bu dul wali ñu jigéen ñi sax ay ci awliyaay lañu bokk ñu jigéen ñi ne ko bés boo gisee ku mel noonu jàppal man a xam ngeen lu tax loolu boo ko waxee ku xamul mu naan euh, ba bi Ibra bu xamee sëñ bi ci baatin lu tax mu koy wër mm-hmm. dañuy jàngal nit ñi mm-hmm. dañuy jàngal doom aadama ne ko loo sonnul doo ci jëriñu foofu la Cheikh Ibrahima jëkk a jàmm tàmbale loo sonnul lu nekk buñ ko tegee sa loxo dana la yàq nga yàqu doomi borom alal yaa ngi fi tudduma kenn sonn ñu seeni bàyyi wàcc fi lu dul jeex ñu ngi fore jàngaleb Cheikh Ibrahima dafa sori de dafa xóot te tey jii danañ ci Pape yaa ngi may dégg. bu baax sax. jàngaleem daa xóot de. Mm-hmm. li tax mu doon wër sëñ Bamba laay wax. Mm-hmm. loo sonnul doo ci am dara. borom kër gi dafa xëy xëy rek am li mu hmm? lim daj da leen koo mën a wax. Mm-hmm. ah. Cheikh Ibra fu nekk jaar na fa ba ak ba ñu àgg moom almadi te yàlla na fi weesu. ñu weesu fi ñun ñëpp. yaa ngi dégg ndax ku ku dox ku nekk yéene nañ la lu bari. dégg nga Cheikh Ibra daal di tàmbali di wër sëriñ bi mhm. sëñ Abdou Touré nee na ma mhm. wër na ko ba àgg sama kër baay sama kër maam maamu sëñ Abdou kërim turi mhm. sëñ Abdou Karim Touré euh, sëñ Abdou Touré xalifaam nee na ma moor mu tafa mbombe Touré la maamam tuddoon nee na Cheikh Ibra bi muy xeeñtu sëriñ bi nee na xet xetu sëriñ bi da ko da ko da xetu nitu yàlla da ko daa xeeñ moom Cheikh Ibra waaw benn waaye mës naa ko wax mu ne ah waaye sëñ bi yéen Baay Faal yi man ngeen a daanu de xetu nitu yàlla <laughs> mën ne ko da nga jàngul alxuraan inni la ajidu riixa yuusuf baatin la antu fan <laughs> ab yonent moo ne xetu yuusuf ak may xeeñ de Cheikh delloo sur ñu mm-hmm. na yonent yu jëkk yëpp di waxe foofu daana toog ba mu yàgg mu ne ah, doom defarul leen xetu sëñ Bamba may xeeñ ñu naan daanu nañu de xet <laughs> te kat ñu ngi koy jàng ci alxuraan ba noppi weddi ko moo tax jàngkat uhuh. su amul ndimbal uhuh. mooy gën a sànku ñëpp uhuh. mooy ko ami bakkan ba noppi soj dara du la noonu mu ngoog ah sëñ bi mooy ko am bakkan ba noppi soj dara du la xeeñ dëgg la de waaw góor a waaye nag lu mu daan def Baye Cheikh Ndiamane nee na ma Cheikh Ibra Fall nee na doom ñii di julli maa leen gën a xam julli daanaa julli téeméeri rakk Cheikh Ibra da daan yëkkati tànkam bi mu mel ni aw dojo ni ci tànk bi mun ne ñii sujjóot ñëpp maa leen dàq sujjóot téeméeri rakk laa daan julli waaye nee na xamoon naa ne dinaa ci ma a génn suñu borom jàllale ma ci lu ngeen xamul. ci lu ngeen xamul. waaw lu ngeen xamul ndeysaan. gars yi Cheikh nee na xaj bu tëddee ba guddi. ba ki xamul dara nelaw ba wëlbatiku Cheikh Fall la jàng ne ki xam dara. di jaamu yàlla nee na xaj da leen di gis ñoom ñaar. daal di baw. ne xam-xam na xamul xamul xam-xam na xamul xamul xam-xam na xamul xamul nee na ah, ñi xam ñu ngi ci yàlla ñi xamul ñu ngi nelaw rek waaye da di bàyyi ba ñu wëlbatiku nag ba xool mu wax loolu ñu tëddaat mu naan ndeysaan xamul de. <laughs> waaye nee na xam nga lu tax mu naan. noonu xaj. sëñ Mbacke Ndiaye bi sosee ma ko wax de. ne xam nga lu tax Cheikh Ibrahima nee na xaj naan hmm. bu booyee ba noppi nee naan danaan baatin raw na yoxub xikam oh baatin raw na yaxub xikam firil ñu ko ba mu gën a suufee waaw kay ah waaw nee na sagesse bul ko am mukk ba defe ne borom baatin yi sa moroom lañ parce que tu sage am nga xel yaa ngi xalaat yeewu nga Cheikh Ibra nee na boo defee ne baatin borom baatin yi sa moroom lañ juum nga de moo tax mu ne baatin dara mu ne yaxub xikam nee moom la xaj di wax di guddi nee na diggante bi mu koy wax nag ki xamul dara ci yàlla ak ki xam dara ci yàlla lay waxal Cheikh Ibra lu mas a wax xam na ko nee na nag Mor Moustapha Mbombe ture moomu Baye Cheikh Ndiaye daabaay nee na ma Mor fa Mbombe Touré ca la Cheikh Ibra mujje ndax nee na booba doom eh, waa njabootam dañ koy xeeñ xetu wàllu njabootu Mor Mutu fa Mbombe turi turi yi ñu baax lañ wallaahi sëñ Tubaa nee na Seydina Jibril bu daan ñëw ci man sëñ Abdou Karim lay nuru jëm moom lay jël waaye Cheikh Ibra nee na keroog ba ma nekkee foofa di ko liggéeyal gis jenn doomam xetu wàllu xeeñu ma laa ne kii du sëñ Bamba dafa baax rek Cheikh Ibrahima ni mu daan xamee mbir bokkut ak ñii de ku ci jàng ñaari téere nag defe na sa morom te kat xam ngeen alxuraan ak addis lu mu ci wax Cheikh Ibrahima nee na déglu leen bu baax waxin bi nee na alxuraan watiit la xaddis xubbit la watiit ak xubbit xam ngeen ko ne taxul nga daj ak jaan bi watit mooy fi jaan ji jaar moom la alxuraan di nettali yoonu jaan fi yonent yi jaar laxat kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab waaw alxuraan nee na watiit la fi jaan ji jaar la lay wan nee na xaddis xubbiit la jaanjee fi ne ba mu yàgg mu gedd gedd der bi mu yoroon wacc ko fa ne sallallahu alayhi wa sallam noonu la def nee na kon addis xubbiitam la waye nee na len ba dajeeg jaan ji mhm. dan ne kon liggéeyal leen waa kër sëñ Bamba yi ñooy jaani yàlla yi ñu matt leen ku leen gis xam ne daje ngeen ak dangar ndax watit ak xubbit mayul kenn dangar dedet moo tax nga gis ku jàng alxuraan ba ne ar def loo xamante ne lii lu xeebu kenn mënu koo dégg gis ku ñimi julli lool te ci faxsha la dëkk mhm. kon na la gor yàlla yi matt de mhm. nga dajeeg jaan jajak jaan dangaru jaan ku ko bëgg ñi donn yonent ci baatin ñoo la koy jox waaye du watit ak xubbeen nee na sama sëriñ ma takkaloo néeg ma yéeg ci kaw néeg ba seen sëñ Adama Gueye ak sëñ Maxtar Touré ne sëñ Touba melo yam ma waxoon ne ku ànd ak ñun nii ngay mel ma gis ko ci ñoom mm-hmm. ne falaa cëppeeloo ca kaw mm-hmm. daw dàqi leen dab sëñ Adama Gueye ak sëñ Matar Touré. nuyoog ñoom ne leen damaa bëgg ànd ak yéen ci seenub sëriñ. nee ñoo ne kii de boo demee ab dof la rek bu am kattan. loo xamante ni bii ni ñuy def mooy. nañ ko nax yóbbu ko bu ñu demee def ko sunub taalibe. est-ce waaw. nee na nee na man leen dem leen ba ñëw ma nuyu seenub sëriñ. Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi ma ko nettali de. te mhm. nee na ma doom ma ne ko waaw mu ne ma Cheikh Rafal làmmiñam sama nopp. Mhm. looloo gën a wóor. ko gën a wóor a ma. Baye Cheikh Ndiaye mhm. ma maag Chérif benn guddi gu gën a jamono. Baye na Cheikh Ibra ne ma Cheikh Ndiaye ma ne ko faal mu ne ma cëppeelu ca kaw ca néeg ca kii ba. daw dab leen wax leen loolu mais bañ bu ngeen dëppee di ngeen fekk ma tàggu sama sëriñ nee na man a sarax ci néeg bi nuyu sëriñ bi ne ko gis naa fu ma mën a jàll de ak dégg wolof nag waxeen wolofam kenn yoru ko bàyyi Seex Taal Galo moo ko daan toggal nee na ma daana xëy wax di wax olof suba ba ngoon kenn du xam ni muy wax te boo ko déggee di nga xam ne olof lay wax mm-hmm. mën ne ko Baye Cheikh loolu nu mu demee Baye Cheikh Tall Gallo mm. mu ne bës naa ko ba guddi mu ne sëpp sëw maa ko mën a dem sëpp sëw sëñ Modou Mbaye gar mi de ñoom ay wolof lañu waaye sëpp sëw waaw sëpp sëñ Modou waaw sëpp sëw <laughs> waaw sëpp sëw maa ko mën a dem maa ko mën a dem maa ko mën a dem supp sëw maa ko mën a dem nan naa ba màndi ku sëgg ma màndal la nan naa ba màndi ku ma màndal la nee daal di def ni nag di def daal ne ca kaw ne kër gi yëpp di riir waaw daana xëy ne bellee su ma ràññee ràññee suma ma bellee su bellee ràññee daal def ni loxo bi ci dënn nit ñi ne lu muy wax. parce lu mu doon wax. ah Modou Mbaye ràññee mhm. su ma ràññee. waaw ah, bellee su ma ràññee. Eh, bay loolu mu tekki. ràññee su ma bellee su ma bellee ràññee. daan mooy man de. waaw. bellee su ma ràññee ràññee suma ma bellee su bellee ràññee. Mhm. xam nga luy bellee suma ma ràññee. xam ngeen loola di wax belli. Hmm. belli mënuñ tànn ba mu sëb ñu ber ko nële. Mhm. demaat ca lañ tànn ba mu set ràññeewaat ca leneen. delliwaat ko ràññee ko Cheikh nee na moom laa ba noppi nit ñi di ko xeeb. daan wax bellee su ma ràññee. ràññee su ma bellee su ma bellee ràññee. ci yàlla ne nii loxo. te man ñu ko fekkee ñoo ma ko wax de. dégguma ko ci kenn bu kenn defe ne damay foraatu. leer na waaw. Baye Daouda Gueye Baxdaas. Mhm. taalibu Cheikh la maa ngi ñëw de sëñ bi. Mhm. dafa nuyu sëñ Cheikh Fall Baye góor sëñ Cheikh Fall Baye góor ne nañ ma woo mm-hmm. ma ñëw mu ne ma njaga kii Cheikh Ibra ko yar lu mu wax Cheikh Ibra ko wax mm-hmm. mu lu ma la wax dama naan la sa maam Cheikh nee na daaw de géy ma ne Fall mu ma nangam ne ma njaga mas na ma ne daaw de géy ma ne ko Fall mu ne làmb yàlla àjjuma lañ ko tëgg Mata ñi nek fi yori téré du fuddan seen sikim fekke ñu sax lamb yalla <laughs> mu ne lamb yalla aju mënañ ko tëgg gaaw mu lol di ber lamb ja tass lu muy tekki xor na de ah, lamb yalla aju mënañ ko di ber lamb ju xumbu lol gaaw lamb ju lol di ber lamb ja tass mhm. ba lamb ja tassé de mané ko faal mu ne ma yalla gërëm na ma ñetti yoon mhm. yonent bi gërëm ma ñetti yoon sëñ Bamba gërëm ma ñetti yoon keroog laa raw bët raw xel hmm. ah daaw di géy li ngeen yor muy ay bët ak xem munuma xam de hmm. man fa ma yàlla teg raw na bët raw xel ah ab daanukat daal di daanu bay daaw di géey bàyyi wax ja daal ne ah, neexu leen a waxtaanal di doom bëggoon na ma jàll de te bàyyi daal du Baye Daouda yi daaree Baxdaas la doon tarbiya Cheikh Ibra waaw kon danañ ñëw ci loolu nee na nee na sëriñ ba ne ma fii ku fi ma si jóge dangay am ngërëmal yàlla dem waaye kenn du fi jóge di dem ci keneen xam nga dama leen waxoon ci njëlbeen gi ne dane gis naa fu ma mën a jëm nañ nañu dégluwaat jàng wolof ci waxinu Cheikh Ibra mm-hmm. gis naa feneen fu ma mën a jëm loolu waxin la koo ko wax te mu yow da bàyyi nga dem. wallaay nee na sëñ ba ne ko. fii ku fi ma si jóge da ngay dem am ngërëm. Cheikh Ibra ne ko du dangaa ngaa xëyoon gis ma. adduna ba mu daj. ci àdduna ba mu daj fulla moo ko ca. est-ce que mu ne ko ah, waaw mu ne ko koo xëyoon gis ko bu xëyee ne maa ngi dem looy def mu ne xanaa bàyyi. <laughs> kenn mun a wax ak moom newoon na avocat yi tee ngeen a jàngi Cheikh ra wax dëgg yàlla. ko ngeen plaidel ñu bàyyi ko. ah na matière yëpp de. Hmm? matière yëpp la jàng da ngaa xëyoon gis. wallaay mu ne ko waaw mu ne ko ma xëy ne maa ngi dem. Eh. mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu. Hmm. nee na sëriñ ba ñaanal ma ñaanu njéppite. Ah. xam nga mag ñi. bañ la masaan bëgg a ñaanal te bëggal ñu laa wax ne ñaanaluñ la. dañ la naa waa baax na demal foo jublu yàlla na laal jublu waaye fal wax ji noonu. te dañ la ñaanal Cheikh Ibrahima nee na ndeketi sëñ bi xamul ne ismu laay lax sam la ñaanam. fa mu jëm muy sëñ Bamba fal yiw yàlla yëpp daje. wallaay te sëñ Tuubaa nee na ya ummu nii ridwaanu min kulli wijhati mm-hmm. mm-hmm. ku yàlla mës a gërëm sa ngërëm jox nga ma ko. Mm-hmm. yow sa bopp yaa waaxu jox ma mune mune mune mune non la def and ak ñom jaar na nak ci ñeneen waye gi nga Cheikh Ibra bi mi dem ci seigne Touba ñim andal Cheikh Ibra neena malaika yi aras ñu ngi tambalé di mara <laughs> maraajal jàngoom ndax gis gi ma nar gis seigne Bamba malaika yi ngi naan ndax jam ñëpp gindiku ki bu gisé ki ñëpp gindiku hmm. Hmm. Nenek malaka yang yaa ngi taal kan yi ci aras seen njaay daabay mu ne ko mu ne ko bu ma kanu tak ci aras dajje ñaari ponkal waaw te dajje bi kat dajje bobu ku ne xam na ne alquran firndel nako wara jall señ bi laal nako legi dajje daje ak musa fañ dajje señ tubaa dafa wat sunna xuddar ak musa geet ya bokul fañ dajje ak la ca xew waaw mhm. daa am ko ma masa laaj ne ma sëriñ bu mat sëriñ mooy kan ma ne ko mooy ki Seex Ibra gis abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilman sëñ Cheikh Fall góor moo ma ne woon njaga luy firi alxuraan. Mhm. ma ne ko xam-xam mu ne ma déedéet alxuraan weesu na xam-xam. law anzalna haza alxuraan ala jabalin mhm. la raaytahu xaashian mutasaddian min xaashatillah. Mhm. wa tilka lamsaal alxuraan yi su ma ko wàccoon ci montagne mu toj. tasaaro. kon alxuraan dara attanu ko de. ñee nekk di coow nii rek. ko wax mu ne xaala. nañ yem ci xaala rek. kese nga wattandiku. yàlla. macha allah. dégg nga. noonu la Cheikh Ibra def. ba ànd ak ñoom. Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi nee na ma euh, mën naa laa wax ci siin lay kan bàmmeel boo xam ne Cheikh Ibra romb na ko ne sëñ Adama Gueye du ngeen ma may tuuti kee romb jooyam yi bari na de ma xettali ko ñu soog a dem sëñ Bamba. kon Cheikh Ibra kay wane sëñ Touba ko taxoon a jóg. te booba àggagul ci sëñ bi àggagul ci sëñ bi de gisagu ko. mu ngi ci yoon wi nekk ci biir bànq. waaw ba mu ngi ci yoon wi. Mm-hmm. mu nga ca wa di dem bi. ah moom de xajul ci quartier général bi ko ah kooku xaju fi man dañ ko waxee sànq laa ne Pape mi dañ ko déy. ah ñun fu ñu jëm kon. xaju fi de xaju fi de man. maanaam maanaam dégg naa ñoom sëñ Modou Mbaye garmi naan eh, xaw ma kii njaabu gëlëm xajul. ci ci pantere waaw. waaw. Eh, waa xajul ci waañ de. déedéet déedéet déedéet Jóob. Cheikh Ibra xajul ci fudul quartier général sax. wallaahi ndax fi mu nekk nii. mën nañ koy waxtaane ba déwén. ay géej la. te dinaa wax li tax mu nekk géej. sëñ mu lay busoo ko wax. sëñ ma mu lay busoo nee na Cheikh Ibra géej la. ñu ne ko lu tax muy géej. mu ne géej gi. moo ko labal ci boppam. موي سيغ توبا اسكي سيغ توبا جيجلا سيغ توبا نينا ليل بحر خد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل بحر ليل بحر خد وجهت عند البحر سيغ يعني شاف الباي غور نينا ما لي فري القران منكو جانغ منما ديدت اك طالب منما كولو اوب طالب مولا غنا ديك القران دونت منكو جانغ xam naa boo ko waxee nga gis ko ne wallet fenaan waaye jàng yonent bi jàngul woon sallallahu alayhi wa sallam nabi yi lu mii la jàngul waaw nabi yi lu mii la sallallahu alayhi te moo raw ñëpp tout ku yàlla ma sa bind moo la raw xam nga lu tax dañ ko jàngal ci jàngalin woo xam ne moom lañ jëkk jàngale noonu iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika moom ci ismu rabbika lañ ko jàngale moo tax bokkut ak ñi jàng nii sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi bu ko defee nag mu ànd ak ñoom wax ne jàdd naa foofu ramm kooku te bàmmeel ba wallahi ku ñu wax lay kan nee na ma bàmmeelu diw la woon waaw Cheikh Rafal bàmmeel yu mës a romb ramm ñooñu noonu na balaa ñoo xam ne duma kenn kenn du man ñi sëñ Bamba defar yépp ñu dajale leen seet armeel yoo xam ne tëj nañ ko téeméeri at ñu jal yax yi ne ah doom ci ngeen di xam ne seen waay ji bokk ci de mm. ne yax yi yax bu ma jàpp ne kii ci cër sàngam la ne newoon ci diw doomi diw ak diw allahu akbar hmm? nangami at la dund feebar sàngam sàngama ko fi jële wala nangama ko fi jële daan ne ah maa bëggoon sëñ Bamba ne kenn ku ne lu man nako def dama nan yeen bàyyi and ak man <laughs> nañ dem aljana te buñ jaar ci de man nako de dox <laughs> moko wax de wallahi moko wax te man man waxuma ay mak de deug la ay mag ñu mu yar ño tok ñu wax ko ñu wax ma wallahi ay daanu daanu waaw nonu nak la def and ak ñom ma sama serigne bobu Baye Cheikh Ndiaye da bàyyi neena ma mu and ak ñoñu jëm ci serigne ne malaayka yi di feet ca kaw aras nee na ba may jub dëkk bi laa gis Seydina Jibril mënuma ne maa lay jàngal ak taalibe Seydina Jibril waaw dama ko wax fenn benn waaye naan Baye Fall yi daal ma ne ko xadisu Seydina Omar mokkal nga mu ne waaw ma ne ko xam nga xadisu Omar mu ne waaw ma ne ko saxaaba yi dañ Omar dane danoo tag toog dànd rasulullaay yant bi kenn daawu ko ñuuxu Cheikh ba mu ñëwee la ne sëñ Bamba kenn dootu ko ñuuxu ñu ne yëfi daf lay andi te rasulullaay bu mosaan toog fii saaba yi nee la ñuy toog comme soxla woo la wax la lim ma lay wax nga dellu am ku ñëw koo xam ne gisuñu benn màndar gi tukki ci moom te kenn xamu ko ci dëkk bi mu ñëw xadis ba lu mu wax sukk jël ñaari bëti óomam jàkkaarloo ko rasulullah jël ñaari loxo loxo yi teg ci lupp yi lu tax Omar nettaliwaale loolu lu tax Omar nettaliwaale kooku ni mu toogee ci kanam yonent bi di laaj yonent bi daa gudd nag yonent bi di ko tontu waaye léeg-léeg bi wax mu ne ko wax nga dëgg saaba yi na aar ah, kii di laaj te lu ñu wax mu xam ne wax nañ dëgg xel yëpp jaxasoo mu laaj yonent bi loolu daa gudd sëñ bi xam na ko mm-hmm. Mm-hmm. ba mu ko laajee ba dem sallallahu alayhi wasallam ne xam ngeen kii di dem ñu ne déedéet mu ne Seydina Jibril moo ñëwoon di leen jàngal seen diine mm-hmm. seebra faa la waxaat loolu ne Seydina Jibril ma jàngal ak taalib te toog gi mu toog ci kanamu yonent bi wàcce ay bëtam siggiwul xool ko nee na moom laa leen jàngal nee na man Jibril la ma jàngal ak taalibe wan ma nu ñuy toogee ci kaw kanamu sëriñ wax ma nu ñuy waxee ak sëriñ ca kaw taalibe ci suuf nee na ak taalibe foofu laa ko jàng moo ñu ko won hmm? nga xam ne am na maqaamam gis Jibril waaw kay ak seegul ci sëñ Touba noonu nag te gis dinaa Jibril lekk ci maqaama yu kawee mu ngoog hmm, hmm. ba noppi nag muy nit koo xam ne multidimensionnel la xamoon ngeen ne lu ñuy liggéey ci àdduna rek Cheikh mën na ko xamoon ngeen loolu maanaam musta xanaa bi mu nekkee mag waaye musta musta santaane benn liggéey day jóg rek def ko sëñ Fallou Fall mooy taawam bu góor sëñ Fallou Fall bu doon ci jamono yi dañ koy def ci ci instance yi gën a mag ci menuiserie sëñ Fallou Fall daana jël bant di ko def noo xam ne ni dafa jaaxaloon ñëpp te kenn du ko nettali waaye sëñ Fallou Fall moo jëkk dem ci géej gi tarbiya fa sëñ Bamba ba mu yeewi ko te gaa yaa ngi koy bëgg occulter bañ mu feeñ waaw mu jox ko Mouhamadou Fall taawam ba mu ne ko taalal taalam ba sëñ dem ba ne ko Fallou kaay dellu ci sa bàyyi xam nga li ñuy wax xabool mooy ak nangu mu ne ko waaw mu ne ko nit ñi dañ koy wut sonn ci lool yow may naa la ko hmm? mm-hmm. léegi nag mm-hmm. Cheikh Ibra daal di ñëw nag. Mhm. sëñ Moussa Ka ne ba mu ñëwee Mbàkke Bawol daf ne na waa kër gi Bawol. Mhm. nay soq di rooti di wal boole liggéey di ko joxe. Hmm? Mhm. maanaam bi mu ñëwee jigéen ñëpp liñ doon liggéey dañ koo bàyyi. moo daan soqal jigéen ñi. waaw waaw. moo daan rootal jigéen ñi. moo daan bojjal jigéen ñi. moo la daan xambal seeni taal cey faal. doo liggéey fanaane root. ah. Mm-hmm. waaw mu ne yéen doo liggéey fanaa lool mm-hmm. balaa ginaar ne kurkuréet mm-hmm. moo ko xewal dawul dox yéen <laughs> doo liggéey fanaa root <laughs> ah. noonu nag la def ba ñu téye ko fa ay fan mu soog a gis sëriñ bi loolu ay ay ah ca Mbàkke Kajoor waaw ca Mbàkke Kajoor la ko fekk mu soog a gis nag sëriñ bi eh, sëñ Musaa Ka ne ñaar fukki fan la la mbir ma wóor mm-hmm. waaye nag jëkk ñëwu fa ñaar fukki fan ya mm-hmm. ginnaaw gi sëriñ bi moo leen laaj ndax am nga ko àndal ñu ne ko waaw mm-hmm. waaye dégg nga sëriñ bi sax wax na ci waxi wolof yu xorom nee kii xobu xël la xamul xajul ci gémmiñu tef <laughs> maanaam xobu xël xël xajul ci gémmiñu tef xël garab googu euh, euh, Modou Mbaye gar mi xam na ko xël ana Modou Mbaye. maa ngi lay dégg waaw góor waay. ma daal Alaaji nekkatuma Mbaye. ndeysaan dama toog rek waaye nekkatuma. dégg mun leen xobu xël la. Mm-hmm. Mm-hmm. xajul ci gémmiñu tef. Mm-hmm. boobu dañ ko bëggoon def ab taalib. waaye ba mu gisee ak moom nag. xam naa ne loolu beneen kii la. Mhm. danañ ci mën a jàll waaye ci gàttal. Mhm. fii la jaar ba gis sëñ bi. Mhm. jotaay ba kay xanaa. nga dellu si jotaay bi rek la ñu waxante. la ñu waxante. waaw waaw loolu loolu kon. bisimilah loolu nag mooy mbir ma nag. yéen a ngi soog a jóg nag ci le clou de la soirée. <laughs> ba mu gisanteeg sëñ Tuubaa coow li coow li. ba ñu gisee nag la yëf yi ñëw nag. ca lépp xew. waaye nag nu ne nettalee nañ ko ne. waaye li sëñ Bachirou wax bàyyi mun Mountakha mii. Mm-hmm. moo gën a wóor de. dëgg la sëñ Bachirou ak maandu ga. Mm-hmm. sëñ Bachirou ak jege yàlla gi. Mm-hmm. man maa gis fu sëñ Touba bind ne. sëñ Bachirou min akabiri awliyaa ilaahi la nee na bu ñu ko doon firi ci wal France. ministre d'état la ci yàlla. du jar ci premier ministre lu mu soxla yàlla la koy wax. direct. loolu ñëpp xamoon nañ ko ci yoonu Mouride Cheikh Bachirou Mbacké. la ilaha illallah ku ku mas a jaaxle ci àdduna mm-hmm. am na koo xam ne kii dafa dem ci sëriñam mm-hmm. ba ko daan seetal du tudd turam mm-hmm. sëñ bi ne ko sa doom sàngam bu demul kaso dana dem sa war hmm? sa borom wan na ma ko dara mënu cee jaas ci moom mu xëy jaaxle ne ko waaw nu may def kooka ne ko sëñ Basiru rekk a ci mën dara ah gars yi gars yi buñ mës a jaaxle ci moom la ñuy dem de. Mm-hmm. Cheikh Mountakha mii. Eh, mm-hmm. sëñ Bachirou. Ah. ñi xam yoonu murit xam nañ li ma wax. Mm-hmm. <laughs> waaye ba mu ko yow dootee sëñ Bachirou kooku ki may wax xam na. mu ngi koy dégg fi mu ne. sëñ Bachirou ba mu noppee ci moom da ne du dem kaso du dem sawar yàlla rus na ma ci. est-ce que. sëñ Bachirou rek nga daan yót nit. ne ko ah, kii de aw fanam laa bëgg mu gudd sëñ Modou Lamine Diop Dagana da ko ne sama doom ji dama bëgg mu gudd fan mu ne ko dinaa ko laaj suñu borom. wallaay ba yàq dëgg la. sëñ Bachirou Mbacke bàyyi Cheikh Mountakha. Mm-hmm. waaw ah. nee na nee na ba ba ba ba sëñ Modou Lamine ñëwee ne ko. loolu mm-hmm. la yàlla wax mu ne nee na sa doom ji gàtt fanam da koo dogal dogu ci. da koo dogal dogu ci waaw. xam nga ñi xàmmeewul dogalu yàlla. xàmmeewuñu ko bay xàmmee lu yàlla dogal dogu ci ndekete kat lu yàlla dogal dogu ci ku ci jéem dara dem. Oh, da am problème. <laughs> waaye lu yàlla dogal te dogu ci nag ku ko xàmmee mën nga cee ñaan. Uh-huh. léeg-léeg nga gis sëñ bu tëju dugg xalwa dee di. waaw <laughs> ñu jële ko fa rob ko daa fekk lu yàlla dogal dogu ci mun a da ci ñaan. dëgg la <laughs> yàlla ne ko kaayoo. ci yàlla convocation lañ lay daal di jox. wallaay ay njaga mi ma ni bilaay njaga mii li xale yi wax njaga mii <laughs> ah ba njaga ndur du la dégg <laughs> ah. léegi nag ba mu ñëwee ba ba mu ñëwee ci sëñ bi sëñ bi sur dane xàkkaa aliya muriduhul kabir moo tax ku bëgg suufeel Cheikh Ibra yaa ci des sëñ Tuubaa moo ne ko yaay murid bu mag bi waaw sëñ sëñ Basiru ne xàkkaa nettali na ma mm-hmm. kan la nettali mu ne alaya man mm-hmm. ñu ne ko kan moo la nettali mu ne muriduhul kabir murid bu mag ba mm-hmm. ñu ne ko nu mu tudd mu ne a cheikhu ibrahima fall mm-hmm. ñu ne ko lu mu doon mu ne wahu min fursaani niyati til wa cheikh yi ëpptu nee na bu doon kursu la fas yi gën ci fas yi ñu leen di wax raas nee na cheikh ibrahima moom la fas yi raw rek neena koku la cheikh ibrahim boko don misal neena fas wowu la wowu gawru yene la ci top serignam munako inna awwal ma ahadtu alayhi cheikh من الاهدي والبيهات خم قال لي غنا وور توجور موخكو نانيي ديم تي وور باي خرافات ياك نيت لي ياك داكو ني ني مونوكو نا لي سيغ بشيرو ني شيخ ابراهيم نينام تا مانك تا منن باخ خديم مو غنا وور دي غاي تي كات في ني في لي لب ني ana awalu ma ahadtu alayhi cheikh min al ahdi wal bayhati sëñ Basiru ba ma jëkk ak dajeeg sa baay di jébbulu ci moom di fasanteeg moom kóllëre nit ñi xamuñu ne ñaari franc yooyu yoonu murit ñaari parti la jébbulu kese doyul jébbalu ak fas fas kóllëre la de bëggoon nañ mu leer waaw daa war a leer de <laughs> waaw waaw jébbulu euh. bo fasul coloré bo gisutul koku noy def dem sa yon wallahi way bo fasé coloré do fa jóg mukk déedéet wallaay jóg waaye donte def nañ ci yow lo xamné dara muntu la yàqal way sa coloré do la may ngay fa nga jëm fa valeur bo topé nitu yalla top ko ni nga wara topé bu fa wacce ku matul sax nga motali ko ngeen and dox xam nga lutax cheikh ibrahim neena cheikh ibrahim xam nee na am murit fu mu sukkee jébbalu ci sëriñam yàlla day seet martaba ba ba ba taalibe bi toll mu yéegal foofu sëriñ bi mu commencé fa di dem hmm. déggu leen li ma wax Pape Cheikh dégg nga li ma wax bonus sax laa ci laa ci comprendre bonus waaw kay mu ngoog nee na nee na ndekete boo jébbalu dafa am secret yu ci ne Cheikh Ibrahima ko xam promotion la nee na boo jébbalu ci nit nga ëpp ko martaba nee fi saasi lañ koy jox martaba bi nga yor fa lay tàmbalee jëm kaw promotion wu talibé waaw sëñ Modou Mamoun Mbacke mu Daaru Salaam hmm? ah? eh, sëñ talibé bu mag bi sëñ Mor Faasa Baaxu hmm. kër ba mu jébbalu sëñ Modou Mamoun lu ko wax da ko ne Mbacke ne la ku ci man sama bëta ngi ci lu war ci moom danaa ko def loolu la lay jëkk a jox àddiya soo ko jébul hmm. ak taalib waaw ak taalibe du caaxaan de hmm. sëñ Modou Mamoun la wax hmm. sëñ Modou Mamoun a ko doyoon waar Daaru Salaam kooku sëñ Tuubaa ko yar waaye bu daan joxe àddiya boyetu almet la ciy boole sëñ Fallu na ko lii nag Seydina Muhammadul Mamoun lii nag mu ne ko dama laa bëgg a wax ne boo ko taaloon tam mu wutal leneen ba tey noonu la ko taal ko ak nga jëfandikoo ko laayam mm-hmm. almet bàngo taal ko léegi nga xool mm-hmm. kon ak taalube valeur la de mm-hmm. Cheikh lim ñu jàngal nee mu ne ko kon ñaar la al ahd wal bayan ahd mooy lan mooy euh, fas kóllëre fas kóllëre mu ngi ci alquran. waaw foofu bil ahdi. innal ahda kaana mas'uula. Ah. Mhm. Cheikh Ibrahima ne moom laa jëkk andi de jëkkuma jóg jébbalu de. Mhm. dama ko ne damay fas yow kóllëre. Mhm. te xam nga kóllëre lu koy dundal. ngor. li ngeen bëgg a jafe ngor rek a jafe. wallaay ku gore am li nga bëgg. ci yàlla te kóllëre ku gore rek a koy am nag lu jafe ci jamono yi Cheikh nee na kóllëre laa la njëkk a jàngal gaa yi nañ dox foofu jëkk ci ni nit ñàkki kóllëre fi mu nekk nii ndax dañoo dañoo jóge ci société de masse jëm ci société boo xam ne individualisme rek kay dox. Mm-hmm. mooy suñu jamono. Mm-hmm. moo nekk ci jamono fi mu ah kenn ku ne sa bopp rek la ñor. kese kóllëre ñoru la. Mm-hmm. dara ñoru la. dëgg la de waaw. foo nekk yaa ngi calculer sa intérêt bopp. individualisme boobu. luñ dal moo ñu dal. te ba ñuy dund société de masse. lañu amoon valeur. waaw. individualisme boobu moo tax kóllëre amatul. danger la ndax individualisme mënta am kóllëre di am. Mm-hmm. nañu waxante dëgg àdduna bépp ak ñuy dégg. Mm-hmm. premier échec. ku amul kóllëre nag doo am yàlla. Mm-hmm. te ku yàlla jox ab kóllëre. nga sàggane ko. kaana masuula. sun borom nee na gis nga kóllëre yi ngeen di fawe bu yowmal xiyaame moo leen di téye ëllëg. kenn ku ne dana la laaj ana ki nga kóllërante woon. <laughs> Hmm? moo tax Cheikh Ibra jàllale kóllëreem ba ne ba ne sëñ Bamba dinaa la liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal te kóllëre googu mooy dox ba tey hmm. xam nga am kóllëre Cheikh Ibra moo tax hmm. loolu duma ci àgg Cheikh Moustapha Mbacke ba ko tubaab yi ne nangam turu kan lañ ciy def Cheikh Moudou Moustapha Mbacke ca yeewu ga mu ne def leen ci turu Cheikh Ibra tubaab bi ne ko ma gis la kii buñ ci defee turam waa këram xëy na ñoo ko moom na mu ne ko da xamul kii ak waa këram kii moo waa këram ba bés pinc du ñu bëgg a moom dara ko leen moom rek lañu ñu bëgg moo tax ñuy tëgg yaa nuy moom bu ñuy dund ak bu ñuy dee dënd amoon ba ñu tëgg waaw yaa nuy moom laa ilaaha illallaah xale yor sikkar léegi dañ koo soppi ba lu ne dugg na ci waaye nii lañ daan sikkar yi jamono bi Ibra ak yeneen daaj yi moo taxoon ma bëgg ñu àndi leen daaju kër Cheikh Ibra yu jëkk yi moo tax ma woo ñii ba ngeen xam sérieux bi nekkoon ci sikkar xam nga ne lii fu ñu ko tuddee kenn du yëngatu kenn du tal a fecc kenn du wadd dala kenn du wàññeetu waaw du dégg ngeen ko mm-hmm. nu daaj bi tudd ah. régalier. régalier. noonu la tudd. naka. régalier. àndut ak ndagar wala kon. Ah, waaw ah régalier la tudd. daaj yooyu dana am yeneen daaj yu ñu dañoo bëgg tey plateau bi nit ñi xam. Mm-hmm. Cheikh Ibra dëgg dëgg. Mm-hmm. te bàyyi caaxaan yi. Mm-hmm. ku nekk nag ni ngay sikkar yaa xam. waaye daa am nu ñu ko doon tuddale yàlla de. nit tudd na yàlla ci kanamu Cheikh Serif Assane. sëñ Assane ne tull parenteer bi di ko xool. mu mu bëgg lu neex sëñ Assane mu ne ko sérifoo ay dara sëñ Assane ne ko tooñ nga ma de yéegal nga ma ba ca kaw nga bàyyi ma ma xaaweer ah yóbbu woon nga ma ci yàlla fu kawe de waaw mu ngoog tur yàlla laa ilaaha illallaah day yéegal góor Cheikh Ibrahima ne day somb góor ci yàlla kon ba ma jëkkee dajeeg sëñ Bamba sëñ Basiru lay waxal de di jaayanteeg moom di fasanteeg moom kóllëre kóllëre gi mën naa doon waxtaanu boppam kóllëre ak Cheikh Ibra xanaa xama bu ñu ko defoon tem tey duñu fi jóg moo am kóllëre faal te moom la nit ñi ñàkk nag koo gis doxalatul kóllëre kon benn jàngalee nga boo xam ne foofu la Cheikh Ibra jëkk jëkk jëkk damee pion nit ñi ñàkk kóllëre kenn ku nekk li nga gën a yittewoo mooy kala def ginnaaw yàlla la nga doon ba nga doon li nga doon balaa nga am jàmm xeex ko ba du doon dara hmm. lépp ci nit ñi laay wax nag am na am coloré ba léegi waxuma généralité la ma bëgg ñu jóge ci ci jotaay bi xam ne dañoo bëgg jàngaleef Cheikh la te bay a ahdu la jëkk a wax nañ am coloré nit ñi nañ fas coloré te am coloré mooy tax a am dara de ku amul kóllëre du mujj fenn kon yal nañu yàlla boole ci ñi jàng kóllëre namp ko ci seen allahumma mu ne wal bayxati ak jaayante gi nag jaayante gi soo ko ñëw ndekete ndeke jébbal lu diis la doomi Sëñ Tuubaa lay waxal nii de na ko ñëpp jël li archive la du hadiis sëñ Basiiru lay waxal ñeneen ñi nag dégg ngeen fu ne ñu ne nii la jébbul waaye xam nga ne la sëñ sëñ Cheikh Ibra wax sëñ Basiru moo gën a wér ci lu nit mën a jàpp ba noppi mu bind ko ci téere mel ne nu baax xaddi lii may wax boo demee foofu fekk ko mu ne ko bi ma fas li kóllëre di jafe-jafe dama ko fas sëñ Bamba li jaayante di jafe-jafe dama jaayante moom xam ngeen lu jaayante allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi نعم ما انفقوا منا ولا اثر ولا اثر قال لي فلوهم اجرهم <laughs> بحنا دال شن بني احنا وقتنا نكت <laughs> شن جاب سرين لكت ولا خم خم هاو هو تبي دو اثر والله هاو هاو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله بنينا نقول سرا وعلانيه والذين امنوا وهاجروا wa jahidu fi sabilillahi bi am amwalihim wa anfusihim ahsanu darajatan indallahi ulaika humul faizun mm-hmm. lazina amano gaa yi gëm mm-hmm. Cheikh Ibrahima dafa àndi sunna yu kawe yi gaa yi wax mm-hmm. xam nga ko defe ne sunna yii rek la njuumte la sunna dafa am yu kawe am yu yem am yu ci suuf ñii ñi nag bi ci suuf lañu ne di bëgg a rey nit Cheikh Ibra nak sunna ya gëna kawé ci nitu yalla yi mom lay doxal lazina amano mu àndi gëm wa haajaro ñu gaday Cheikh Ibra gaday leppam wa jahidu fi sabilillah ñu xex ci yoonu yalla bi am walihim ci sen alal wa anfusihim ak sen bakkan sun borom neena ñoñu ñooñu axsamu darajatan indallahi ñoñu bu leen leen def morom ño gëna kawé daraja ci yalla don ne ko sahaba ya Cheikh Moustapha Mbacke daal ne kii de moo waa këram dañuy bëgg ku leen moom ba bis pénc du ñu bëgg a moom dara Cheikh Ibra jaayante nag daldi wax kàdd goo xam ne moo ko masa wax nit ci yàlla ndax di ngeen dégg ci kanam li tax sax mu am njaboot waaye sëñ Tuubaa da ko noonu lii nga bëgg njaboot sax du ci am doo doom doom doo am kër Cheikh Ibra Fall mbaar mu rey kër sax doo ko am danaa ñëw ci biir Eh, loolu de ko ko waxoon sab sëriñ fi mu ne maa bëggoon nga sukk ci nit rek mun la àdduna doo fi am dara da nga ko naan waaw waaye boobu la lay gëj dootoo ma gis kay <laughs> lay bàjju fàll moom rek la sëñ Tuubaa doo fi am dara ci àdduna mun a ko ayca moo ma gënal moo tax kes keroog ba sëñ Tuubaa ne wuti leen ay soxna mun a yëf yaa ngi bëgg a neex de ndeke soxna ci la mosu ko cee boole daa jàppoon ne du am kër du amul njaboot du am dara تدنا لين وقت فيم كوا مني في كبير سين بسيرو لا كوا جس نجيبل غيرك دار نيميشن بابشة نجيبل دار نيميشن خمو بني كتة جاي دار نيميشن شهد منكو قلت له إني لم يخرجني من بيتي إلى طلب شيخ موصل أجد من حاله نور حق تندفئ امامه ظلمات الخلق وتنجلي به ايه الحق nga serigne bo dem ci kanama wax ko lii danaan ki wo len ko waxtan ak mom wérul ndax serigne bi du xam li nga koy wax kuñ ko wax ku dul Cheikh Ibra mënoo ko wax ab serigne te serigne boko wax ku dul sëñ Tuubaa danaan la man nga dem ba benen tojal ñu ko ci wolof. waaw mm-hmm. ah, kay mm-hmm. mm. nee na sëñ Bachirou man mii di wax ak yow. man mii. Mm-hmm. dama ne sëñ Touba. lam yuxrij ni min bayti ila talabu Cheikh. génnuma sama kër nde ak sama kër bàyyi lu dul wut sëriñ. waaye nag mu wasilin waxuma kuy coow rek de ku àgg tey àggale. ëpp. ku àgg tey àggale maa bëggoon ñu bari nga ne leen. damay jébbalu bëgg nga agalé ma dañ na ah, defal ni gaay rek mom yëf yi moom ñun ñafa yam señ <laughs> fallu mbacké mu baax ni am na bés ca woyof ga mu bëgg nax nit ñi hmm. daan na ba ngeen démé né leen Serif Assane ñun ñëpp a way bay gañangi rek lañ man nga <laughs> mal xiyam ñëpp dajé ñu né señ baba gañangi hmm. ñun ñëpp loolu lañ man kenn mënul dara ndeke day neub ci talibé bi hmm. ñu wax ko señ Assane mu né ah, yow leen nax na leen de fa yonent yi tale seen bopp ku fa tal gaañu ba naan bàyyi gaañaa ngi waaja nga <laughs> ah koo xam ne ku ne sa bopp ngay tal yow mu yaqulu jami urusli wal kurama nafsi si wal muntaxa muxtaari mbaay ñëpp naan nafsi nafsi bis pinc koo gis danaa wuy fu ma jëm ba mu des rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kulluhum nafsi ah? ahmaduna mu naan yaqulu ummati yarham xayra man rahima waaw waaw ah Cheikh Ibrahima daan wax naan doom buñ demee ba àgg ca ku ngeen ne yow a mu ne du man bu boobaa yéen ñi ma yaakaar nee leen ma yow a ma leen mën mu ne génn ma kër sama kër ndey sama kër baay lu dul wut sëriñ bu mat sëriñ buy àgg àgg tey àggale kon condition boobu moo ci dëkk de ku la mënta àggale te àggut du sëriñ gars yi nañu waxante dëgg tey de. lii Cheikh Ibra fondement mooy yoon wi. nee na lu ma daawul def luñ ko ci boole boole du ci. lu ma daa def luñ ko ci génn génn ci la. bu demee ba ci kanam nag lu ne dana nuyu yoonu sëñ Bamba bi lépp nuyoo na tàmbalee guñu. Hmm? lépp nuyoo lépp nuyoo de. kon. Cheikhin mu wasilin la wax sëñ ba sëñ ba ne tekk xam na ne moom lay wax. waaye nag ndekki Cheikh Ibra moom lu mu wax. ni mu ko xamee daa ëpp mu daal di andi tasawu fa tàmbalee ba fa mu yem. ak jiddu min xaalihi nuur xaqin. sëriñ boobu danaa fekk ci biir baatinam leerub dëgg. leer goo xam ne xaq rek la. sëñ boobu du dox ci lu dul àq. xanaa xam loo ne mës naa ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko bi muy soog a jébul ne ko sëñ Bamba war na nit ñi jukkoo Rasulullaay sallallahu alayhi wa ba ñu xam mooy kan ma liggéey loo leen ñu texe déggal ma ji wax wanal nit ñi jikkooy rasulullahi ma liggéey loo leen ñu texe te sëñ bamba loolu bu doon waxtaan wi beneen waxtaan bu ñu ko defan ba mu wax leen sëñ bamba jikkooy rasulullahi ni mu ko def maa li haza rasul yaakulu taam ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا te boo waxee ñu تي شيخ Fall نينا القران سيغ Ibrahima مان لاكو جو sëñ Bamba man la ko jox ndaxte <laughs> motax seigne modou aminta ak seigne cheikh fall baye goor ak seigne bass fall alcorane ak seigne gundam seigne mbacke fall sank sax tuduma wa keur seigne mbacke fall mang koy jéggul ñoñu ni ñu melon ci alcorane man mako séré ba waxe ñuy xeb baye fall seigne cheikh fall baye goor da nan talal tankam yi ni ma diko bëss bu bërset mu tambalé bakara di jang ba ci diggi mu wëlbeutiku ci lal bi ba mu yag mu jaxanaat Jangan ba ca jeexlu ba mu jóg toog muy fajar te du ko gis neena ma sama alxuraan dañ ko def ci man <laughs> ko ko sol waaw <laughs> waaw ci day san tok na ci kanamam ni sëtub Cheikh ibrahim rek la sëñ Cheikh Fall Baye góor tok na ci kanamam ni mu jekki jekki gem ni ba ci de may ma tok maa mom rek tok toog mu ne mu xippi ne ma njaga yaangi tok ma ko mu ma bi may nelaw legi deg nga may wax ma ne ko déedéet Fall dégguma dara mu ne ah sama sëriñ ba ma doon jàngal mag sëñ mu doominta moo ma feeñu fii léegi si Ibrahima Mbaye ne ma seex yaa ngi topp ceex gi ba ba jàngatoo alxuraan ndax mokkal nga ko na nga ko mokkaloon ma ne ko téyal ma fu la neex ma tari ci gént kat hmm. nee na mun ne ma taral ma suuratu raxdi mu ma njaga fi ma tok tari naa fi rahdi di ba mu jeex ci nelo yu ma soog yow. mooy alif laam mim re waaw te loolu yombul de. gént tari rahdi di ba mu jeex. ah dama ci gaay yi naan xaala. xamuñu sax loolu. gént tari saaru tol non ba mu jeex ci nelo te yewu ah man nga gént tari l'ikhlas nak limi am am doole. waaye gàtt na. ah gàttul te yombul ah gàttul yombul de moo tax daana ma wax naan ku ma la ne mën na alxuraan mën na ku ma la ne mënul mënul ndax borom alxuraan a ko jox alxuraan moo ko jox alxuraan ba moo ne man la kanil xuraan tam lii kan yadu bi an na nii xillun wa hibbun wa xadim wa xadim mbàkki jërëjëf waaw mu ne ko nuura xaqin luy nuuru xaqin nuuru xaqin moo doy waar baat boobu Cheikh Ibrahima ko jëkk wax sëñ Tuubaa muy leerub dëgg. leerub nga xam ne sa jëmm dara lu dul yàlla du ci mm-hmm. ah, mm-hmm. moo tax sëñ Tuubaa su doon waxtaan wi ci moom la. Mm-hmm. danañ jóge nag danañ xam ne lan moo tax muy nuur a xàqin. tax Cheikh Ibra wax ko. nuur xàqin la ko wax. waaye nuura xaqin cheikh ibra lu mu wax da ko faram fàcce luy nuura xaqin mu ne tan dafi u amaamahu zulumatul xalqi mooy leer goo xam ne ku ko yor lu nit ñi tilim tilim lu ñu lëndëm lëndëm nga fóot leen delloo leen yàlla ah koo xam ne kii say tilim tilima la jaaxal nooy fóote kenn nan ngay fóote kenn moo tax benn waaye nee na gaynde Fatma day sànn Mm-hmm. man de Mbàkke damaa gis yéen lu ngeen tere nit léeg-la mu bàyyi ko léeg du ko bàyyi te sëñ Bàmba lu mu tere nit mu bàyyi ko mm-hmm. mag ñi xam nañ loolu mm-hmm. xamoon ngeen ne sëñ Tuubaa comme ne bàyyil nangam da nga koy bàyyi waaye waroon nañ laaj lu tax sëñ sa Mbàkke ne ko da nga gis ku mel ni sëñ Tuubaa mu ne ko tuub naa ko mu ne ko xam nga nu mu daan teree mu ne ko ah, loolu laa waroon njëkk a laaj de mu ne ko balaa lay tere dara day wax yàlla kii na bàyyi nangam ba yàlla ne ko dana ko bàyyi mu tere la ko. que. waaw digle ak tere koo gis muy coow fii boo mënul lii waroo digle waroo tere. déedéet. dox diggante nit ak li nga koy tere. ku ko mënul bàyyi tere yi. te xam ne yow sax bàyyi woo li ngay tere. dëgg la de. Mhm. Mhm. loolu mooy nuura xaqin tandafiu alam amamo zulumatul xalq daal di ci teg loo xam ne wa tanjali bihi ayatul xaq yëpp mu ne ko kéemaanu dëgg yi yonent yi defoon yëpp te sun maam aadama ak awliya yëpp lañ defoon benn sëriñ lay wut boo xam ne dana ko def moom kenn de sëñ boobu de lay wër loolu nag moom ku ko wax ku dul Cheikh Ibra xamoo ko sax ba di ko wax. kuñ ko wax suñu suñ bamba dam ko naan li ngay wax waxaat ko ma dégg ba xam. xaw ma li nga wax kat. dëgg la waaye càppaacoli jaa ngi koy déglu rek. ba noppi Cheikh Ibra teg ci loo xam ne fa la dogu mën a yem ci àdduna. lawlam ajit ahadan mi man haasihi sifatu إلا خبره لبلغني ستر نيتي فيه أملي الله أكبر مجي شيخ إبراهيم فت مجي جاكر لك سنة توبا نكو سوفي كنتنة ملو يي جسو مكو تيو كون نغا خامن مم مم ور جم سيفالي ور آه، وا مم سيفالي ور دي شيخ إبراهيم نينا ملو لا دون ور وروما اي نيت ني دك Cheikh Ibra warul ay kii de si la wax. Mm-hmm. mu ne sëñ Touba xoola ko am fitu jàkkaarloog sëñ Touba ne ko lii ma wax bu fekkee nekkul ci yow gisuma it ku am melo yi damay wëri xabroom mën naa am faatu ma waaye foofu looloo gën a garaaw looy def ci xabru ba nit ko fi jóge mu ne dana ne ca xabru ba di liggéey ba lañ waxante woon am. ci pas-pas. waaw ci pas-pasam rek. Mhm. la balax ni sit ku niyati fii am. Mhm. mel ne pas-pas mën naa may nit lu ne. mën naa may lu ne. Mhm. waaye sëñ Tuubaa wax ko loo xam ne lii loolu yóbbu na fiti ku ne. inni ubaayihu ko ala an la uxsa min dunia Cheikh Ibra sax may wax ba tey. ne ko maa ngi jaayanteeg yow Mbàkke déggal loolu fit woowu mu am. ala an la uxsa min dunia bi chaaratin gis nga benn pepp karaw karaw ni mu tuute bul ma ko jox ci àdduna bugguma moo tax sëñ Tuubaa ne ah Ibra a gore da ko mosa woon nag Ibra Faal sa borom nee na loo gisati yaa ko moom ba martaba da ngeen ko mës a gis lu sa bët tegooti rek yaa ko moom. lu sa bët tegooti yaa ko moom. mu ne ko mbàkke wëlbatil ma sama mbari bët ba bu ma gisatu lu dul yow. a allahu akbar <laughs> waa jàng noonu. bu ma gisati lu dul yow. bu ma gisati lu dul yow far sax nag. sëñ Bamba rek la bëgg am. waaw ah, mu ngoog mu jeex. waaw ñun tee ñoo arrêté émission bi. Cheikh Ibrahima. Hmm? tee ñu koo arrêté Baye Ndiaga. ah déedéet ëpp naa de. <laughs> yaa ngi ñuy bëgg a rey. waaw. am dara. da xool kuy jaayante noonu ci yàlla. wax nekk waxul sax yàlla bu ma fi jox kaasu ndox. Hmm. karaw la wax benn pepp karaw. Hmm. bi chanraté. moom mooy wax ba tey de daan ne sëñ Tuubaa innama hammi allahu wa daarul aaxirati benn yitte laa am yàlla ak àllaaxira soxla mu ci àdduna dara moo tax sëñ Tuubaa mas na ko ne yow defal àdduna bu baaxoon ma jox la ko lim bon tax joxuma la ko te yooyu jamono waaye ñu ne lu tax Cheikh Ibra ginnaaw gi wala loolu danañ ci ñëw فخال له شيخنا شيخنا رضي الله عنه دغلو لين نك بي ديالكتيك دغلو لين فيلوسوفي بي دغلو لين سيرن اك طالب نيم دويا وار كي نين كوي جانغي سي سيرن توبا اك شيخ ابراهيم منكو لو لم اجد من اثاره صلى الله عليه وسلم الى منظر هذه النجوم والسماء الذي تحققت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها لوشخت بأن نيتي ومحبتي كفيلتان لي قضاء الحج واللخص باليد أن سابقة الحسنى من الله تعالى لمن رزقه الإيمان به والحب فيه بي wax kenn musu ndekete Cheikh Ibra mhm. ndekki Cheikh Ibra listixaaru sëñ Touba la daa fekk sëñ Touba di am lu muy laaj di gëm ak boromam daan ne ko man mii di wax ak yow kon ndekete noonu la mhm. law lam ajit min asaarihi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ila manzar haasi nujum su ma donnoon ci yonent bi lu dul di gis biddéew yi mu daan xool te mu wóor ma ne daana xool biddéew yi rek dana ma wóor ne ci jagleeg yàlla gu jëkk ga دنا أمل مبغ ما تخمن يسيرني كل آلس وصعب يصير مدر ولخاد سر غاب عن غيري مو خد كنت سا خرب وخد كنت سا نهي من ما كسر وني أنت بيوه مجنا مستر كتما يسيرني مجابنا كل آلي وصعب يصير مدر ملني جابوتم لا أكسابا ما عندك يسيرني كل آلي وصعب يصير مدر ما كو بند ها mu ne ko loolu rek dana ma doy ci faj sama aajo daal ne ko ala ani ubayihu ko alamti saali wajti naabi wa tarxiyatil himmati ilallaahi Ibra Fall maa ngi jaayante yow